محمد المكين وعلى آله وأصحابه وأسنى خديمه ذوي الرضوان والتمكين بكي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ginnaaw bi ñu sante suñu borom subhaanahu wa taala julli ci Moustapha sallallahu alayhi wa sallama ñu ngi dellu di yeesalaat suñu jaayante ak suñu cofeel ci borom bërëb bu tedd bii ci suñu wet di Mawlana al Abdul Xadim di nuyu mboolem ñi fi teew ñëpp ak ñi nga xam ne ñoo ñuy teewlu di leen ndokkeelit ci weeru tedd yi nga xam ne ci la ñu tàbbi di weeru koor di ziyaara ak ñaanal ak ndokkeel kilifa gu mag gi nga xam ne nekk ci kanamu yoon wi ci kanamu jabootu sëriñ bi di Cheikh Mouhamadul Muntaqa di ko ñaanal mu yàgg fi lool te ànd ak wér ak mboolem njabootu sëriñ bi yëpp ak mboolem taalu bi yëpp ak jullit ñëpp mu ngi leen di ndokkeel euh, tey jii mooy àllarba di ñaari fan ci weeru koor atum junni ak ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak juróom <coughs> dëppoo ak fukki fan ak ñett ci weeru maaris adar atum 2024 ñu teew fii ci béréb bu tedd bi ci weer wu màgg wi ngir waxtaan ak jataay yu am solo yi nga xam ne daairatu muqaddamatul xidma baaxoo na di ko ànd ak bokk yi saa bu weer wi teroo keroog muy jeex xam ngeen ne démb lañ ko door tey ji mooy ñaareelu fan bi ñuy ñaan suñu borom defal ñu tawfiq ak ndimbalam ba ñu àggale ko ci jàmm te lépp ñu am ci ndam tey tey itam daje ci ngërëmal sëriñ bi itam euh, tey nag ni ñu ko defe woon ci weesu dañoo tànn tomb boo xam ne bu ama am solo la jox ko itam jëmm ju tedd ju baax itam joo xam ne bu ñu leen waxee ci moom dara aslëf da ngeen xam bu baax xam naa xam ngeen ko sax waaye dañ ko gën a xam incha allahu taala mu war ko waxtaane tomb bi mooy al mursidu rabbaani muwaasafaatuhu wa makaanatuhu maanaam melokaani melokaani kilifa ak diine melokaani kilifa ak diine ak wàccuwaay bi nga xam ni am na ko Euh, yaakaar naa tomb la boo xam ne wax na boppam wane na boppam itam ndax bu ñu nee kilifa ba noppi ne diine teg ci war a waxtaane ay meloom war a waxtaane wàccuwaay bi mu am jàpp naan loolu dana tax ñëpp war ko bàyyi xel ñëpp war ko teewul ndax mursid lañ wax koo xam ne dafa ame ay dafa war a ame ay melo yu ne ci moom yëpp sëñ bi dana ci ñëw teg ci rabbaani yi kon moom itam mu joxaat ko beneen maanaam mu xóot ndax day delluwaat lépp ci suñu borom subhanahu wa taala kon tomb boobu insha allahu la kilifa gu baax gi war a waxtaane du ma dugg ci euh, anaasir dëgg-dëgg waaye am na ñetti tomb yu mag yoo xam ne dana ci dana ko waxtaane dugal ci biir ñetti tomb yooyu yeneeni tomb yoo xam ne dana ko yaatal dana ko tudd insha allah bu ñëwee ci tàmbali bi dana def muqaddima bu ci joge ñëw ci yi nga xamne moy mooy muwasafaat yi moy melay manana ci bir muqaddima bi dana xamle lan moy wala kan moy al mursidur rabbani ak lan moy ciosanam dana waxtane itam euh fiñ ko mana sukkandiko sukkandikoo ci alquran li alquran andi ak sunna ci xamle ak leral kan moy al mursidur rabbani waaye itam ñenteel ba dana def benn laaj boo xam ne dana ko tontu insha allahu ci biir waxtaan wi lépp ci muqaddima bi mooy ndax kilifa diine benn xeet la wala ay xeet la dafa am benn kilifa diine gu am wala dafa am ay kilifay diine yu am su ko defee nag su ko ñëw ci ñaareelu tomb bi mooy nag melo yi boobu it am na tomb yu ci aju incha allah dana ko tudd bu ci bu ci jógee ñëw ci ñetteelu tomb bu mag bi mooy nag wàccuwaay bi bi nga xam ne moom la kilifa diine am ba moom itam am na ay tomb yu yu am solo yoo xam ne sëriñ bi incha allahu dana ci dana ci ñëw ko defee nag comme tomb la boo xam ne jamono laaj na ko ndax jàpp naa ne jamono ju nekk société bu mën a doon danañ soxlawoo njiit lu mat njiit loo xam ne day ne ci kanamu mbooloo mi di leen won yoon wi ñu war a jaar di leen orienté di leen jubbanti di leen digal di leen tere taxaw taxawaay bu mat sëkkit nag loolu lépp war naa tax kon ñu mën a tànn tomb bu mel nii daairatu mu maanaam daairatu muqaddamatul xidma ci njiital al imam sëriñ afi Buso ak ñu ko seqal ñëpp ñu jox ko nag suñu kilifa suñu nijaay di suñu xarit waaye di suñu royukaay di al cheikh Mouhamadul Mamoun Mbakke ibn al cheikh al Fadil ibn cheikh Khadim sëñ Maamun na xam naa moom xam ngeen ko bu baax ndax euh, jaar na fi ay yoon te it bu dul loolu it waxtu wu nekk ñu ngi koy suivre ci ay waxtaanam ak ci ci ci ci ak ak itam ci ay intervention yu am solo waaye du ñàkk rek xëy na ñu am tuuti rek luñ tënk ci wàllu ay jaar-jaaram ci wàllu xam-xam ak li nga xam ne taxawaay yu am solo yi nga xam ne da koy taxawee ci yoon wi tënk bu gàtt rek xam naa sax taamu ko moom ñun ñoo ci insisté rek. ginnaaw njàngum alquraanam ci diggante Touba ak dégg nga kër ma ñaaw ba wattu alquraan soobu ci njàngum xam-xam rawatina daalay cosaan ji nga xam ne moom da koy tuddee al umm madrasatul umm muy daarul maarif al islaamiya te alaaji Mbàkke jaxate ne ca booba daan saa bu buy waxtaan toujours da ngay gis mu koy sidda lu baree bari fa la jànge lu baree baree bari ci njàngum majalis mi ñu xam waaye ba mu ci noppee dafa daal di nag laxas dem ndakaaru dugg nag ci école yi jàng ba am certificat foofa sax daanaka taxawu fa ndax euh, école boobu ñu wax franco te nekk tafsir ahmadou ba bañ demee dañ leen a soteel lu bare bare daal di def seeni seen euh, maanaam shahada ibtidaaya mu daal di génn nag dem Algérie foofa moom itam mu jàng fa ba àgg ci niveau baccalauréat am ay tënki-tënki jamono ak ay jafe-jafe jamono yu amoon ci wàllu politique ci ci ñoom tax mu dal fay joge dem Maroc bi ñu ñewé Maroc nak la defaat mana baccalauréat boobu bi mu ko amé la dugg nak ci université Mohammed 5 bi nga xamne mo nek Rabat ci kulliyatul ulum al qanuniyya wal iqtisadiyya wal ijtimaiya mooy kulliyatul huquq rek manam faculté bi nga xamne moy jàngale walu droit fa la am fofu la jàng fa la nekk di jàng ba am li ñuy wax maîtrise waaye doylawu ko mu jóge fa delsi dellusiwaat Sénégal ñëw université bii nga xam ne léegi moom la ñuy woowee université de Cheikh Anta Diop dugg ci kulliyatul adab wala ulumul insaniya muy faculté de lettres maanaam faculté des lettres et des sciences humaines ci ci ci maanaam qismu luxal arabia mooy kon département arab fa la fa la nekk moom itam de kii fa jàng fa njàng mu yaatu wéyal itam dégg nga dirasa ulya ci kulliyatul xuquuq ba tey ci même université bi ci li ñuy wax troisième cycle ba am fa maîtrise moom itam soog a nag wéyal am njàngam taxul mu doyloo ko waaye dafa daldi di inscrire waat maanaam par correspondance en tariq al murasala ci université bi nga xam ne moo nekk Paris muy Paris 3 foofu itam jàng na fa ba am fa benn diplôme bu ñuy wax brevet arabe littéral kon bu lii bu ñu ko tënk rek la ci ay yenn ci jaar-jaaram ci wàllu xam-xam bi mu ci jógee it mu jël loolu lépp nag fas yéene koo def ngànnaay loo xam ne da koy liggéeyale maam Cheikhul Khadim ci toorub lislaam bi muy xam-xam tax na mu am ay taxawaay yu am solo yoo xam ne taxaw na ko yiñ ci mën a tudd rek bari na lool waaye baanaa bokk na ci yooyu doyloo goo xam ne ay kilifaam doyloo nañ ko rawatina ci jamono Cheikh Saalix bari na ay daje yoo xam ne da doon am bitim réew moom mii bu jiitewul bo maanaam ña ña nga xam ne ñoo ko fa teewal itam dana bokk ci ñu ko jiite te mu bokk ci daje yooyu sommet des ville bi amoon Istanbul ci mois d'août ci 1996 te ñu invité woon ci Serigne Saliou invité ci Touba comme modèle comme ville modèle Touba gis ngir yu bare bari yoo xam ne seetlu nañ ko fi amul bidonville amul nangam ba noppi itam dégg nga nañ ko lëtise macha allah am solo lool tax ñu jël ko comme exemple Nations Unies ci boppam ñoo ko tànn. daal di invité sëriñ bi nag pour mu ñëw fekke si invité Touba itam pour mu ñëw sam boobu moom moom sëñ Mamoun mii bokk na ci ñi nga xam ne teewaloon nañ fa yoon wi te te dégg nga teeween bu rafet te Cheikh Moustapha Salih moo jiite woon délégation waaye lu dul loolu itam am na ay taxawaay yu am solo ci suñu diggante ak lu mel ne suñu dëkk yi euh, maanaam suñu mbokki naar yi mm, mu commencé ci fi gën a jege muy fii fii fii fii ci gànnaar liggéey na liggéey bu am solo rawatina jamono sëñ Salih ba nga xam ne ne Sarsara dox na ci ay jéego taxaw ci lu taxawaay bu bu bu mat sëkk ba suuf sa nga xam ne fa nga xam ne fa la sëñ bi nekkoon ñu mën caa jot ba def fa euh, ba ba ba ba fi mu nekk di ñu fay def jumaa wala wala jàkka nga xam ne naar yi bi ñu ko joxee sax dañu wax ne euh, lii bu doyul ñu dolli te loolu lépp ci ay jéegoom la ak ay ay taxawaayam waaye itam euh, diggante Sénégal ak Maroc taxaw na ki taxawaay am solo ba moom bokk na ci bu doonul sax ki nga xam ne moo moo dox ba tey jii su màggal Tuubaa amee mu am délégation ay officiel maanaam yu jógee dégg nga ba Maroc di ñëw di fekke si màggal bi loolu kon ci wàllu diplomatie yaakaar naa ci biir waxtaan bi sax loolu dana ci am wàll incha allah ci maanaam makaanatu euh, al mursid al rabbani allah dana dana ci ñëw kon yooyu di taxawaay am solo bi ci mu nga xam ne moom laay jeexale sax ko jox fi mu toll nii euh, mooy ki teewal yoonu murit teewal sëriñ bi ci conseil supérieur des affaires islamiques bi nekk ko d'Ivoire te loolu itam ñoom ñoo ko sàkkul seen bopp ñoom conseil bi ñoo ñëw ci sëriñ bi gisee ak moom waxtaan ak moom xool yoonu murit xemmem ko ba wax sëñ bi ne ko bu ngi sañoon nga boole ñoo koo xam ne dana ko mate ci xam-xam dana ko mate ci wàllu ragal yàlla ak ci jikko ju baax yépp nga yabaadal ñu ko mu ñëw nekkal la foofa ci la Cheikh Mountakha yàlla fi yàgg loolu tamit tànn sëñ Maamoun mu dem teew di di ci dégg conseil boobu liggéey fa liggéey bu am solo man mi ngi rek waxtu wi daaw daje nañ fa gis nañ bu baax taxawaay yi nga xam ne taxaw nag fa yooyu yëpp daal soo ko boolee ay taxawaay yu am solo la bokkul ak nag taxawaay yu rafet yi nga xam ne da koo taxawal yoon wi lu mel ne ak durusul xasane yi ñu amal ci koor gi ca fee ca Maroc nga xam ne maanaam buur bi day toog ñu invité borom xam-xam bu mag mel ne moom mu jël benn dars dégg nga di ko jàngale ñu baree bari di ko teewee ay chef d'état yu ay kilifa yu mag dégg nga di ko teewee loolu am na ci yoo xam ne def na ko du benn du ñaar du ñett daanaka bi ci njëkk sax mi nga wax euh, maanaam de defe naa la ko njëkk def te amaana yeneen lu ci topp kon mu nekk jëmm joo xam ne daal xëy na euh, yëpp sax bëggul ku ko wax ndax moom li ko ñor mooy taalibe gi ak xëy na toroxlu gi waaye nag baax na ñenn ñi xam euh, lenn ci misuwaar ilmiyam fi fi mu jaar ci wàllu xam-xam ba nga xam ne danañ gën a jox itam solo li nga xam ne moom la ñuy bëgg a andil kon sëriñ bi maa ngi jégalu xëy na lii ma bëggul woon bëgg woon sax ku ko andi waaye nag day loo xam ne mënta ñàkk bu ko defee kon ñoo ngi lay jébal kàddu gi rek incha allahu taala nga andil ñu waxtaan yi ñaan yàlla defal tawfiq te incha allah ngi teewlu ko bu baax a baax bismillah aoudu billahi min alcheytaani irrajim bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi waxdahu wasalatu wasalaamu ala alhadi alamin سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه وخديمه وأمته وسلم تسليما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نور وقلبي أرشدا بركة برمتوبة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Eh, ñu ngi ziare bokk yi tedd yi fi teew yëpp ndax bu ñu sant yàlla julli ci yonante bi alayhi salaatu wasalaam ñaan yàlla fayal nu ko te yàlla taas ñu ci ay barkeem sant Cheikh Mamadou Fadal mi ma booleeg sëriñ Touba te ñaan yàlla fayal nu ko te yàlla taas ñu ci ay barkeem te ñaanal Cheikh Mouhamadul Mountakha xalif général de mu yàgg fi loolu te wér ba li muy liggéeyal ak li mu bëgg liggéeyal sëriñ Touba lépp ma àggale ko ci sago te nu fekkee ko te ànd ko moom noonu lañ ko ñaanalee njabootu sëñ Tuubaa gépp góor ak jigéen mag ak ndaw di ko ñaanal njaboot kilifa yi yëpp ci ak kii li wër Sénégal ñu ko ñaanal ñu dong yëpp rek yàlla defal ñu jàmm ak mucc ak wér ak i xéewal di sant sëriñ Fallou ci kàddu yu rafet yi am na ci loo xam ne ni nga koy waxee da ngaa baax rek waaye jëru ko woon as ndongo suy dabbu daaxee rek daanaka mënoon nga ne wax da ab taalibe buy dabbu daaxee rek la kenn ci dong yi rek eh, ñuy tàmbalee eh, wax ji nag incha allah ci sant bu baax a baax da daayiratu muqaddamatul xidma bi nga xam ñooy taxaw lii ndax liggéeyub Sëriñ Tuubaa moom ku ne kaay tabbi ca dafa laa bëgg dimbale kon ñu leen di sant bu baax di leen gërëm di teg cant googu ak ñaan gi ci loxo suñu Afee suñ jëwriñ moom suñ jëwriñ la woon ca daara ja macha allah ak ñu koy jàppale ñëpp ba ci abadila yi abadila al ahad ñoom ñëpp rek ak ñi nekk ci daayira bi yëpp ak waa presse bi ñi filmer ñuy bind ak ñi jël ak yëpp rek ñu di leen nuyu di leen ziare di ziare bokk yu baax yi fi teew yëpp maa ngi si bëri ci njaboot gi ndeysaan ak njaboot yi ñu ngi sant ñëpp di ziare ñëpp di di di ndokkeel ñëpp ci jataay bi ak ci weeru tedd bi ñu nekk eh, mbokk yi dañoo pour gagner di pour njëkkanteeg waxtu yi rek ndax waxtu yi dafa xaw a gàtt fi mu ne eh, ni ko sëñ Fallou waxee thème bi ñu tànn nañ bëgg ñu sànn ci ay kàddu mooy al murshid rabbani muwasafatuhu wa makanatuhu muy eh, thème li mu ko wax kilifa diine ay meloom ak wàccuwaayam muy sujet boo xam ne bu yaatu la mën a yaatu la waaye comme jamono ji dafa xat dañ ci tënk ay baat rek ci ñeenti point rek lañ koy tënk incha allah gannaaw buñ ko ubbilee mooy li mu wax muqaddima danañ def lan mooy muwaasafatul murshid rabbani maa hiya muwaasafat al murshid rabbani lan mooy qualité euh, kilifa diine lan lan ndax ndax sujet bi daanaka moo plan boppam al murshid rabbani muwaasafatu wa makaanatuhu kon buñ ko ubbee ba xam murshid rabbani mooy kan xam mu wasafaatam mooy euh, mu wasafaatam mooy lan xam makaanatuhu mooy lan lan mooy wàccuwaayam daal daal tëj muy xaatima bi kon ñeenti point lay doon rek al muqaddima wa ma hiya muwasafatul murshid rabbani wa makaanatul murshid rabbani wa al xaatima ci tënk kon bu ñu tàmbalee rek dañuy wax ne kon gannaaw bu ñu sant yàlla julli ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam sant ñu ma ko waxee rek bokk yi fi teew yépp ak bokk yi ñu tàmbali ci liggéey bi ci muqaddima bi danañ ci wax ñetti point daanaka lan mooy al murshid rabbani ak ndax am na cosaan ci alxuraan ak sunna ci diina ji ak fu mu jógee eh, ndax kilifa diine genn lay doon wala yu bari la waaw benn kilifa diine rek am wala kilifa diine yu bari la suñ ci jógee ni ma ko waxee deuxième deuxième beneen bi mooy meloy al murshid rabbani loolu nag eh, dama ciy indi misaal moo xam ne ndax wolof la ñuy wax ne ku am ku du lakk gannaaw ñun taalibe sëriñ bi lañ. te réew mi dafa dafa doy waar loo wax lu ne ñu firil la ko tawil la ko dugal ko fu ko taxutoon a jóg kon dañuy tàmbali ci sëriñ bi jëm ci sëriñ bi rek dama gis kenn xasida goo xam yéen ñëpp yéen ñu bari ci yéen am ngeen ko muy xoqal bu kaaw ala ala sadati amwaati damay wax ne dafa mel ne sëriñ bi da ci xamle boppam xam ne kilifa diin ni mu ramel waaye ci mbaax ga ak mat ga ak ak méthodologie ba du wax ne nii laa mel dama day wax ne gaa yu baax yi ulaaika al xaw gaa yu baax yi nii lañ meloon fekk na dama jàpp ne boppam la bëgg a wax waaye nii laa mel ba ne su ko wax da ba ñu la yaa mu bëgg bëgg bëgg ñoo dimbale boobu nag di wane ne gaa yu baax ñi lañu meloon pour bu ñu ci xoolee xam ne moom moo mel noonu su su mel noonu bu def doon nañoo wax kon su kilifa gi ni mu damay wax ne eh, loolu bu ñu koy xamee dañuy indi sëñ bi dafa indi li nga xam ne ñëpp ko bokk waaw nga xam ne ñi kilifa yi diine ak ñi si kilifa yi wala képp kuy jullit wala képp kuy murit noonu nga war a mel bu ca jegee nañu door a indi xeeti kilifa diine ak xeet xeet wu ne

kon buñ tambalé rek dañuy ñëk ziaré borom barab bi wax ko rek la ko soppeem ba waxoon du wax talibé ba ndax mom néwon na du talibé bu bëgg cheikh sama sëriñ néwon na néwon na ku bax ki def na xuus ci biram rek ba xuus ci biram rek buñ ñu ko tuddee du talibé bu bëgg cheikh du dom ji bëgg a doon bàyyam waaye ba koy ziaré la ma waxoon rek lañ koy wax ñun tam barké lu ci ziaré ko mu di mu di ñaari baytam yu siiw yooyu ngeen xam mu di ya sayyidan ya sayyidan fil maali qalla charwaahu wa ya muhibban fuaadi dahra mathwaahu إني أتيت لوجه الله زائركم أبغي به نيل ما أرجو وأهوى كون نك سيرين بي نونغو نيغي نيو دي زيارة سي يوم ميغا خامني امو دارا تي واي واخين لا يوم ميغا خامني سما خول يوم ريك لا بغ اك سا بربو تدي بيغا نيك داما نيو غير يالا سيارة سي لا تي نيو غوغو ريك لا لوما ياكار اك ليما بغ ليب يا نيان يالا ديفال نكو تي تي يالا نكو تي يالا ديف كون كنا بو ني سانتي نييب گرم نييب سيارة نييب سيارة شيخ منتخا سيارة سيني عافيه سيارة سيني Euh, baara ñu topp ak mbokk yi ko jàppale ci commission bi yëpp ci daayira Muqaddamatul Xidma ak lañ na saxaaf bi ak média yi di leen ndokkeel ci bu tedd bi di leen ndokkeel ci weeru tedd bi ak di ñu ñuy déglu ni ko sëñ euh, Fallu waxee ñuy topp jataay bi moo xam ci dëkk bi moo xam ci gox bi moo xam ci réew moo xam bitim réew moo xam à travers les médias sociaux ñuy seere ñëpp di ndokkeel ñëpp ci weeru tedd bi leen xamal ni rek ab ab ab euh, sëriñ bi dafa am ku génn ci daaraam koo xam ne damay wax ne bu ca yemoon rek mu dee sëkk mu di maam Thierno maam Thierno jàngal ñenn ci njaboot gi jàngal ñu baree baree baree bare waaye kenn ci ñu jàngal mu di Cheikh Amadou Fadal am ci wax ju wax jum tënk daanaka mën ngaa wax ne rek mën naa tënk wax ji dafa wax ne maag sama mag ju baax ji Cheikh Moustapha al Karim maam Thierno dañoo dañoo yar ne bañ na nar mu jàngal ñu bañ na ar mu yee ñu bañ na jaar ñetti éléments yooyu rek bu ci doyoon daanaka doy na liggéey maam Thierno dañoo dañoo yar bañ na nër mu jàngal ñu bañ na ar mu yee ñu bañ na jaar kon ab yar mënta am njàng mënta ñàkk ak nite mënta ñàkk ak yeew kon loolu rek loolu rek doyoon na boo ko boo ko boo ko boo saraawoon rek doyoon na waxtaan eh, mooy wax nag ne waxtaan ci kilifa diine wala mursid rabbani ci barab bi jafe na yomb la jafe na ndax tey day sujet bu yaatu lool mën nañ cee wax ba suba du jaax waaye li tax mu yomb itam mooy dañoo toog ak borom xam-xam borom xam-xam yoo xam te warkala suñuy doom lañu ak suñuy sët ak suñuy jarbaat ak suñu mbokki taalibe di borom xam-xam soo koy ñu gàgganti la barab boo xam ne boo fay wax boo koy ñu gàgganti la yomb naa waxee yow da ngay wax la nga xam rek bu dëngee ñu jubbantil la ko boo koy ñu gàgganti la donc problème problème lu ci am kon sant yàlla bu baax a baax rek waaw eh, ngeen xam ne xeetu yonente bi alayhi salaatu wasalaam ummatu muhammad sallallahu alayhi wa sallam day ummatu iqra ummatu iqra bismi rabbika allazi xalaq kon xeetu xeetu xam-xam la xeetu jàngale la xeetu yéege la xeetu defar la xeetu yara la ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam mo wax ne addabani rabbi fa ahsana ta'dibi yàlla wax ko ne ko innaka la ala khuluqin azim kon mom ummatu iqra la xeetu jàng la batay tey xeetu xam-xam la xeetu geus la xeetu diin la baat yi ñuy wax loo nag mu al murshid buñu timé ci alquran dañuy fekk ne dañuy fekk ne islam diinu rushd la diinu hidayah la wa hudan wa istiqama wa rashad ak njub ak noko mëna mën tëgg rek mooy kii gind nit ñi ci ak jub ci ko jëmale ci yoonu yàlla moo tax ca alxuraan ja da ngeen dégg yàlla ba muy ñaan ihdina siraatal mustaqim la yàlla yàlla mu jindi yoon wu jub bi sëriñ bi ci ñaanam gu tedd yi moom itam dama waxoon rek ihdi jami ana siraatal mustaqim wa bi saxihin kun lana bila saqim yàlla yàlla ñu jindi teg ñu ci yoonu jub te defal ñu ak wér donc rachada rushd wa rachad boobu bu ngeen demee ci alxuraan da ci ñëw ay yoon yoon ñëw ci ayat suratul baqara ñëw na ci suratul araf ñëw na ci suratul hu suratul hud nga xam ne ak feneen ak feneen ñëw na suratul kahf maanaam bu ngeen demee ci suratul baqara am na fu yàlla waxee ne bat rush rush wa aya 185 wa ida saalaka ba'da bismillahi rahmani rahim wa ida saalaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i ida da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun rachat amna ci san fofu ci alxuraan joo xam ne mën nañ caa wax lu bari bari xani amna contexte bu taxone ñëw amna saw bu nu saw tax ñëw lolu tax ñoo jóg ñëw rek may baat bi ñëw na ci alxuraan karim surat al araf ñëw na ci boo demee ci ay 145 sa asrifu an ayati allatine yatakabbaruna fil ardi bi ghayri xaq wa yaraw kulla ayati la yuminu biha wa yaraw sabila rushdi la yattakhidhuhu sabilan wa yaraw sabila xay yattakhidhuhu sabilan dalika bi annahum kadibu bi ayatina wa kanu anha ghafilin shahid bi rek mooy baat rushdi bi ñëw ak rachat bi ñëw في سورة هود عليه السلام العربي بسم العربي قالوا يا شعيب أسنامرك تأمرك أن نترك أن يعبد ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أمرنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد donc rushd wa rashad laa bëgg ñëw rek wax ne ñëw na ci alxuraan bu ci nekk nag am na contexte bu tax a jóg loolu duñ ci taxaw ndax kon day gën a jël waxtu yaatu lool waaye ñu xam ne baat bi lu cosaanoo lu ci alxuraan al karim la ñëw na ci suratul kaf wa ma yudil falan tajid lahu waliyan murshidan kooku tam xes ba ko tax a jóg waaye ngeen xam ne kon murshid foofu la utilise sax ci boole ci boole ci رباني رب والرب والرب يوتم نيونا تي القران يون يون تي ساندولو بو بو نخول سور الفاتحه الحمد لله رب العالمين الربوبيه وغا خنم موتم امنا لو بري لو تي تخجو غا خنم امنا كو سان فوفو في سوره ال عمران ايه 78 ما كان لبشر ان يوتي الكتاب والحكم والنبوه ثم يقول لنا كونوا عباد لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين كوكو ين da ngeen ko ci bu baax xam ngeen li ko tax a jóg waaye li ma bëgg a wax rek mooy jëmi baat bi ñëw ak istixaaq yi ci ci aju bi maa kuntum taamaloon bi maa kuntum taamaloon kitaab bi maa kuntum tadrusoon am na rabbaani yoon bi fatxil ra am na ribbi yoon bi kasril ra am na feneen fu mu ñëwee ci surtout Ali Imran itam wa kam min nabiyin qutila maahu ribbiyuuna kathiir فما وهنوا لما أصابوا في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير كن دنا نيو رب رباني دنا نيو ربيو yooyu yëpp mën nañ cee taxaw waaye day gën a yàggal rek te dañ ci dañ koy junj rek jàll noonu incha allah fii sunnati nabi sallallahu alayhi wa sallam yonante bi dañu jàngal ne alxuraan ci moo ñu ko jàngal ne nañ nañ roy yonante bi ndax kana fi lakum fi rasulillahi uswatun xasana li man kana yarjullah wal yawmal axir suratul mumtaxana ayal xamisa donc kon nga xam ne yonante bi ku ñu war a roy la ku ñu war a topp la addabani rabbi fa axsana taadibi kon moom yàllaa ma yar moo rafetal sama yar ci bukhari ak muslim ñëw na ci yéen jànkati xadis yi innama bu'istu mualliman sallallahu alayhi wa sallam wax bu'istu li utammima makarim al akhlaq lo lépp deg ngeen ko jàng ngeen ko yoon yàlla dama yoni ngir may jàngale ba fekke gay jàngale xalaqaat yi bëri ci jumaa ji ñi tok ni ñi tok ñi tok ni mu ne fu jàngalekat yi nek mu ñu ñu tok ak ñom deg ngeen ko ba tey ma dina mën a war bu'istu mualliman yàlla dama yoni ngir may jàngale yàlla dama yoni tam ngir ma motli jikkoy rafet jikkoy rafet nag koy motli koy jàngale dang koy jàngale diko woné ñu top ci yow kon muallim nga kon mursid nga Eh, Sëriñ Tuuba eh, ba noppi yonent bi digle ne xudu anni manasikakum waaw bu ngeen di aj boobu xamuñu ni ñuy aje ne xoolee ni may def rek ngeen def ko may may mursid bi boobu xamuñu luy aj xaj na xaj na naare bu ñu daan aj di ñaan wër kaaba ga dafay xëy dama kii fan mais aj bu bees gi bu islam bi bu ñëwee dafa ne xudu anni manasikakum jël leen ni ngeen aje ci ban sallu kama raaytumuni usalli bu ñu bu ñu aqimu salaa ni ñu koy mu ne kaay leen nag xool nu mu def rek ngeen def ko jullee nii may jullee kon ma ngi irshad ma ngay digle ma ngay wanee kon moy al murshidul awal laa bëgg wax mooy sallallahu alayhi wasallam motax bako serigne moy al muallim al awwal te moy sallallahu alayhi wasallam motax bako serigne bi melal ci muqaddimatul am ndax ci harfu nun ngeen ko xamé dafa ne nasihun bila ghishin alimun muallimun saxiyun bila manin kalama yulayinu sallallahu alayhi wasallam nasihun bila ghishin dalay conseiller dalay dalay dalay dalay da xelal te dula wor dafa xam te day xamle dafa tabee te du ci du ci tegu làmmiñam te wax ci day néew méthode bu mu koy waxee day day leer day day day nooy day day day neex a dégg kalaaman yu lay yinu ci xasidu tey si la xasir nga xam ne was fi was fa bii ñuy wax sëñ bi da ko melal yonte bi sallallahu alayhi wasallam dem na tey si la xasir bi ngeen di jàng nga xam ne sëñ bi da ci dëx yoon yu bëree bëri tur yàlla julli ci yonte bi ba saare alquran yi sal am na ci fu wax awalu yaa axiru yaa muaxiru kaw na kadi bila adan addaxiru salli bi taslimin ala sayidina muhammadina habibina murshidina sallallahu alayhi wasallam idan huwa al murshid al وخرت كلام نير سلي بتسليم وآله وصحبه في الحال وفي المآل يا مقيم الحال سلي بتسليم على سيدنا محمد حبيبنا مرشدنا وآله وصحبه وجعل الحروف ظنت بالخيرات من خير الظروف شاهد بيرك موي المرشد صلى الله عليه وسلم بول واخني صلى الله عليه وسلم موي المرشد الرباني الاول رشاد اك هدى الاستقامه ييب موي اك مباخ سيرن توبا دينا غايو باخ ييب لي ام دنجكو ابي تي يونتبي يونتبي اموك باخ كل خدمه او خدمته في روايه اخرى فوق كل رقبه منه استعار الغر كل من قبل استعاره استعاره الغر كوم ني جان خم استعاره لمي فري كون داي ملني ني باخ اك باخ دك جونت بيكو موم تا اك باخ دك موي خم خم اك باخ دك موي موي جوك اك باخ دك موي جانغالي اك باخ دك موي لويت لول يپ جونت بيكو موم ني باخ جي نكو ابي تي موم واي موم مكو موم موي المرشد الاول صلى الله عليه وسلم bi yàlla dogalee nag yàlla loola neex yàlla ñi ñi ñi yaraate bari ñi ñi jiddee bari muy dox addunay dox borom xam-xam yi aw li yu ni baax ñi góor ak ci jigéen nag góor ak ci jigéen danaa ci insisté baatu jigéen boobu ndax ci fin ba dana am lu question bu ñu ci posé li may wax lépp ñëpp ko bokk amul góor ak jigéen ba ku tedd kii feeñ sa radiallahu taala anhu nga xam ne kenn xamul lu lu lu mu doon nga xam ne moom mooy wa ko ma la taalamuuna moo nay sëriñ Tuubaa rek na ko sëriñ ba waxee sallallahu alayhi wa sallam mu mu wane ci nag moom mooy kan moom mi ñuy bëgg jàngal mursid mooy kan ak muallim walla cheikh defee ko façon boo xam ne dafa ko def min nga jiyee bu bu kowee avec ngeen baal ma ci waat dafa ànd ak élégance ndax da waxuñ nii dafa ne gaa yu baax ya gaa baax yi de nii lañ meloon gaa yu baax gaa gaa yu baax yi ñooy ñan bopp lu bëgg a waxee mënu ko waxee noonu ah. ndax ndax ndax ndax eh, eh, eh, kéemaane gi ak yàllaa gi ak woyof gi ak njàngale mi waaw te xam nga ne almurshid rabbani bari nay tur waaw bari nay lool te da ngeen di yéen jànk da ngeen di wax ne mbir mu bari tur day wane ahamiya loola importance am mooy tax mu bari tur danañ ko tuddee al imam almurshid rabbani danañ ko tuddee al cheikh danañ ko tuddee al dalil danañ ko tuddee al xojja danañ ko al aarifu billah danañ ko tuddee al alim danañ ko tuddee al allaama danañ ko tuddee al xibr danañ ko tuddee al jihbi danañ ko tuddee xujjatul islam danañ ko tuddee ayatul islam danañ ko tuddee al naxreer ko tuddee al marjaa dañu ko tuddee al baxar muy géej dañu ko tuddee al ustaaz dañu ko tuddee al muallim dañu ko tuddee al xalifa yëpp ay tur la yoo xam ne mursidu kilifa diini gi mën na ko tudd waaw mën nañ cee sori ci bu nekk waaye pour gagner du temps rek ñu tënk noonu rek ñu xam ne bu ñu ne bu jëree dellu si ñu dellu si incha allah léegi ndax mursidu rabbaani kenn la wala xeet yu bari la kilifa diine defe naa dañu ko firee ci wolof kilifa diine lañu ko firee ci wolof kilifa diine benn xeet la wala xeet yu bari la xeet yu bari la waaw bismillah waaw xeet xeet yu bari la Euh, waaye sëriñ bi tënk na ci rek ñetti xeet yoo xam ne mooy euh, yu mag yi mooy sëriñ buy jàngale sëriñ bu yaraate ak sëriñ bu yéegee mu tudd ko cheikh taalim cheikh tar tarbiya wa cheikh tarxiya lan mooy cheikh taalim lan mooy cheikh tar tarbiya lan mooy cheikh tarxiya bind yi bari na ci lool waaye nañ doyloo li sëñ bind rek waaw ndax mën nañ jee dem ci fu baree bare waaye nañ doyloo li sëñ bind ñi di sëriñ ak ñu di sëriñ ñu taalibe ak ñu ndongo yëpp ni ñu war mel ba noppi nag bu ko melee ba noppi nag mu door a wax nag moom nag la mel li may wax li ci ëpp ko jëlee ci majmuu bi mu tuddee majmuu Cheikh Abdoul Ahad waaw nga xam ne mooy téere boobu sëriñ Abdoul Ahad bi moo lu woon ay xikma ci nekk ak ay wasaaya euh, xam ngeen ko ñu bari ci yéen am nañ ko te sëriñ suñu mbokk bu baax mi suñu kilifa sëriñ Abdoul Ahad bu sëriñ Chouaïb bu bind ko euh, ci ndigalu sëriñ Abdoul Ahad ñu dajale ci yu bare bare bare bare waaye damay wax ne booy

radiyallahu taala anhu te kon li ma li ma tuddoon principe général bi nga xam ne moom la sëñ bu njëkk indi laata muy indi melooy boppam eh, eh, dafa am ku mu doon ku mu doon ku mu doon dénk waaye yéen jànkati usul yi dafi borom xam-xam usul a ngi fi eh, dañuy wax ne al ibratu bi moom umumi di laa bi xusuus sabab bu ñu waxee ma xañ na xikma dara day tax mu ñëw waaye bu bu bu bu nas bi ñëwee dafay am dafay am porte générale li ñuy wax règle juridique day am portée générale xekkee mi sëriñ bi itam wala wasiyee sëriñ bi su fekkoon ne dafa am ku mu ko adressé itam te day valable ci ñun ñëpp ngeen baat ma ci baati nasaraan yi muy dugg na wala ko dem ci jublu ak leeral rek waaye du waaw ndax kii moom dend ak moom di wax baati nasaraan xaraam na sax waaye dañ ko jéem a gannaaw moom lépp la dégg te dañ ciy jublu leeral la ñu bëgg a wax rek ki sëñ bi bind lettre bi kilifa la ci kenn ci kilifa yi waaye da ko ne wacc al hadihi al wasiya hadiyatan ila siraatil mustaqim te siraatal mustaqim moom ñun ñëpp mu ñu ras lam ko ci wax rek da ko ne ci gàttal ma ngi lay diggal euh nga xam-xam ak jëf ak bu yar nga ànd nga nag ak cheikh bo xamne ne kilifa goo xam dafa dafa bolé yoy yëpp alayka bil almi wa bil amali ba bin murafiqan shaykhan jama dal ne ko xam-xam moy li nga xamne mom moom la as cam di yóbbuloo ndax boko ko xam xam-xam fo jëm di lay teral jëf jiw nag mooy ngeen ji yóbbal boo amee xam-xam te boole woo ci jëf jiw daanaka da ngay bu yàggee da ngay waru fal ilmu xayru ma bihi daana al fata li annahu yukrimuhu xaytu ata wal amalu saalihu xayru zaadi fal ilmu duunahu xururun baadi daanaka wala adabul mardi jikko ju rafet akub yar ak i teggin afdalu jamal fa daani duunahu tamaathala ad-dalal soo ko ci boolewul rek loo am xam-xam loo liggéey liggéey loo def jëf ji rafet te boolewul ci yar rek liggéey ba day jëf ji day dess kon da ngay booleem xam-xam ak jëf akub yar ànd ak kilifa gu mat kilifa nag woon law yoon nga boole ko nag nga boole ko ki teggin akub yar ñett yooyu na ko boole aleyka bi salaatil mazkura fa hiya la daal la rabil wa rabil wara mashkura ñett yi daal yàlla gërëm xam-xam jëf ju sel ak akub yar soo ko boolee moom lu yàlla gërëm la te nga tax ko sub na nga ko muñ nag ci ci top yàlla yi ndax xam nga as sabru dafa am façon as sabru ala as sabru fii wa sabru ni ngeen ko xamee mu ne ko wala wala si bi sabru ala taati wa an si wal khair bil tifaade kon fi amna na sabru ala taati wa sabru an si wal khair da nga da nga muñ nak ci jaamu yàlla yi bu nuroo li di ci itam na nga ko muñ te selal ko lu dul lu bax nak bu ci gesto te bul ànd ak ci sàkku xam-xam kenn ko xamne làqut ñet yële dana am muñ dana am dana dana dana jëf dana dana jëfi xam-xam bi dana am ay ay teggin dana dana jëfi lim ca xam te te na bàyyi nag ak taswif maanaam di di di di di di naa ko dàq ba suba ngay wax naa bàyyi ba suba am nañ jot nañ bàyyi déedéet loolu war a defee def ko tey lu ne rek def ko ci waxtoom te bul rey kon ne koo xam ne lii ma la wax du ko def lii boo ko defee daal te fuuq jii laka in qaadat in qabiltaha nasxan ya fuuq lii ma la lii ma la digal laay biri la ko boo ko jëfee danga nga raw sax maas te loolu mooy na jàng na nga liggéey na nga séddal liggéey ba mooy al ilmu nafia wala amalu saalih wala adabul mardi nga boole ci nag as sabru ala taati wa sabru ala al maasi lii daal boo ko boolee da nga raw sax maas kon loolu ñëpp ko moom moom damay wax ne principe général la boo xam ne ñëpp ko bokk kon kay kay kay kilifa gaa këdul kilifa kay mag gaa këdul mag ñëpp ko bokk ñu taalib bi ñëpp ko war a bokk ak jullit yëpp mu jógee fa nag ñëw nag euh, euh, ki koy ki lay bëgg a digal nag mu mu xam ne boppam mooy kan ndax du caa génn ku jóg rek digle yow bala ngaa digal dafa am na war a mel waaw la mu waxoon waa ji rek ne ko sama kii di sama sama taalibe bi gërëm naa ko la mu ne ko yow na ku kon léegi bala ngaa gërëm kenn wala bala ngaa digal da ngaa war a a mel muy muy nag moom ni mu mel def ko rek di ma waxee de façon indirecte ngeen baal ba ci baxeen bi waxut ne nii laa mel dafa wax ne gaa yu baax yéen nii lañ mel mooy xoq bi ngeen di jàng saa su ne mu yéeme loolu nga xam di ko tàmbalee innamal amalu binniyaat wa innama al mulku liman maanaa waa xam ngeen ko ca Buxaari yi ak Muslim waaye moom da cee de da cee teg moom wa niyyati ak tabarruki bi saadaat saadaat yi ñoo ñan gaa yu baax yi bari nañ lool waaye rek tudd tudd ci kenn boo seetloo itam dafay na boole rek globalement rek seen seen seen i melo mu ne maa ngi jooy gaa yu baax yi yi faar yi fi jógee gaa yooyu nga xam ne suuf si da leen jooy asamaan si leen jooy maa ngi leen di jooy te ma yaakaar ci jooy googu ma leen di jooy ndax li ma leen gisatul gërëmul suñu borom ëllëg ndax dañoo tàbbi ci xéewali suñu borom maa ngi sax sax mi ngi diis mi ngi diis si man di mag di métti ci man ñàkk di mu ñàkk gaa baax yooyee ndax gaa yooyu dañoo làqu dem ci seen borom ci kaw yi a olu waat ñu jëm seen borom ci lu gën a kowe duñ gaa yooyu ñu meloon mu ne gaa yooyu dañu daan jaamu yàlla kaanu ibadan bi taatin li rabbihim wa kaana jalla lahum rabban bihim bi binnaati dañoo nekkoon dañu daan jaamu yàlla dañoo yàlla di di topp yàlla yàlla di leen joxe xéewal dañoo dañoo demoon ba sax ñàkk wird ñàkk wird ak ak ak lekk lu laaw ak jëfandikoo lu lu leew ba ba suur defoon nañ leen ci musiba yu mag yi la bokk kaanu yaaxuduuna tarkal wirdi ma shibaain min al xalaali min asbaabi al musibaati dañaa dem bu guddi ju soree ba mu lëndëm kërës ba ñu doom yi ñoo di suñu mbàjj suñu mand yi kii di dallu ñoom ñu jóg taxaw nag di jaamu yàlla kaanu idal leenu ak xasar satra laa xalakin xaamoo siraam li axyaa il bi naati bu ñu ba nekk tëdd daloo des ñoom yi ñu tëdd taxaw di guddi wax ñu amul solo wala ay kaf dañ ko bàyyiwul ndax weccee ko tur yàlla na nelaw guddi nag xamuñ ko dañ ko weccee di di deele seen borom baaxum fudulan bi dikrillaahi xaaliqihim fa nawmu bi layli baaxum bil munaajaat mu fa ñeen waroon tëdd dafa mujj woo ba duñ tëdd ndax duñ tudd duñ tudd kumba tudd ngóone naasir la dama ko wolofal naasir la lay laa wasalmaan mu ngeen naa rek mu ne ko kubba ak góone rek ne ku ñu fee fa fàttali ko góone baa eh, yàlla rek la ñuy xalaat dañuy dem li ñu dem ci yàlla seen yoroon nag ci lañ daanee seen i seen i seen noonu waaw moo tax ñu am ay karamaat am ay xéewal yu rëy rëy mu ne seen bë seen seen néeg yi ñu daan taxaw tabax arkaanu bayti jamii'an qawmi arbaatun bihaa yu assu bu ñaanul wilaayati ñeenti kenn la سن نجدنا تبخل نين تكون لنك ربحي سمت وجوع طويل بعده سهر وعزرة عن شيوخ بالإشارات نبي أكيف بقدلو كيف كيف بيعدلو أك أك أك أني أكنيرو أك ويت نك عندك كيف يروح من يوم يوم يوم يروح في في بركة سبب نفي المرشد شيخ اللي قلت لي نتاعي بحر لك بكل سين كاليتي كل كل كل يوم ورم خم خم لا رجال يلا لا ku ku yare la ci ay adkaar ak ay xaalaat ay adkaar mooy lu mu lay wax nga koy wax ay xaalaat mooy lu mu lay lu mu def nga gis si moom wala mu lay xool nga muy tabb ci yow waaye adkaar rek mooy lay tudd sa lamiñ dañuy yare di yéegi nit ñi ñii di leen yéegi ci ay wax ñii di leen yéegi ci ay jëf ñii di leen yéegi ci ay junju منهم مرب منهم مرق بحال وحدها أبدا منهم مرب مرق بالإشارات كل خبير بأدواء القلوب معا يكفي المريدين أنواع السعادات am solo mooy dañuy xam feebari xol yi nga xam dañuy nekk ay expert ci feebari xol yi mooy léegi dañu nekk ulama nafs wa ulama euh, yoo xam ne dañuy am euh, rabbaani yun nuuraani yun la ñu doon ndax dañuy xam adwa al xulub mais feebari xol yi lépp luy tax a ab murit sonn wala ab murit nakk texee dañ koy xam dik ko mooy la ñoom ñëpp ku ci ne da ngaa tedd ragal yàlla jub tabe koo gis nag dénk ko lu koy jariñ yi kullun karimun taqiyun doo hudan wa saxan na nasihati fi kullil bariyaati waaw kuñ gis ku ne rek ñu ngi lay digal di la teete di la ci yoon woo xam ne day tax nga jariñu day tax nga jóg te lañ lay digal boo ko defee da da defal lañ boo ko defee day fa far lépp lu nekkoon sa bakkan lépp loo xam ne naroon na laa naroon na laa gàllankoor dala koy dindil yam xaw bi taqwa xuduuti nafsi jumlatiha yaa ngi wolo man minal mawla saniyaati dañ am ay xam-xam yoo xam ne xam-xam yu leer nañ yoo xam ne ci suñu borom lañ ko jëlee dañ la koy leeralal kenn ku nekk ñoom dafa am positif positif boo xam ne da koy koweel positif boo xam ne day ànd ak moom jëm ca yàlla mu tedd may may terale borom borom borom borom ubbee yu rëy ya kullun lahu himmatun yarqa biha abadan ila azizin muizzin bil futuhati te it dañuy gis li ci biir na dañuy gis secret yi du caag yoon rek loo leen waxul xamuñu ko dañuy gis yàkkare yi ba àññil xal bi ci seen bëti xol la ñuy gisee mu mu ne fàng la nga làq sa biir xol defe ne kenn xamu ko ñoo la gën a xam loolu nag beneen mbir la dañuy am leer goo xam ne dafa mel leeru ci jant fu ñu jëm rek ko fa nit koo xam ne da ngaa amul leer daa nga amul ak ak ak ak ak bu ñu la gisee dañ la cee wàll lépp loo xam ne yaa ngi koy nëbbu wala def nga ne de xamee ko yàlla yàlla da koy xamal يغيب عن كل كون المكون ذا نور عظيم وسر من غيوباته يمحو عن القلب رين قد يدنسه محو المغسل عن ثوب النجاسات lépp lu takk ci nit bu ñu gisee dañu koy raasal comme ku mel ni kuy fóot ni muy seetale noonu la ñuy def loxol yi noonu la ñuy def nit ñi mu ne gaa yu baax yooyu nag kenn du kenn du toq seen jotaay ndax taalibe bu toog ak ñoom wala nit ku bëgg lu baax toog ak ñoom dañ lay yokk ay texe ulaayka al qawm la yashqa jalisuhum id yaksibuuna al muridina saadati lu tax ñu am loolu rek fi ñu ko jëlee nga xam ne kon fii da ngay ne Ixlaanu Mbàkke Kajoor bi ma tuddee Ixlaanu Mbàkke Kajoor da ciy feeñ ndax wasaa'id yi daan am tariixa nangam ak nangam nangam yooyu yëpp boobu fekk sëñ bi sëñ bi weesu na foofu day tëbi day tëbi ci yonente rek sallallahu alayhi wa sallam moo tax mu la naalu bi xafi rasulil Mustafa rotaban sallallahu alayhi allati yontil maziyaati li ñu am nag fi ñu ko jëlee mooy dañu doon topp yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci lañ jëlee ay daraja yu kawee kawee kawee ak i xéewal ak i ay ay ay ay pagguteef yoo xam sëñ moom leen ko defal topp ci topp sallallahu alayhi wa sallam tax na ñu am ay ay ay ay ay ay jikko yu rëy rëy naaloo bi xafi ladi jaa al aminu bihi alayhi minu salaati kulla saati kooku nga xam ne maa ngi julli ci moom waxtu ne topp ko ci doon topp moo tax ñu am ay jikko yu rëy yoo xam ne dinaa ci lim yenn bokk na ci jikko yoo xam ne kenn mënu ko bind ci xalima bokk na ci jikko yoo xam ne kenn mënu ko tudd ci làmmiñ kenn am na ci jikko yoo xam ne kenn mënu ko nettali ndax dafa kawe dafa xóot dafa bàttine bokk na ca seen jikko yooyee dañuy dañuy géeju ci xam-xam sharia منها التبحر في علم الشريعة تبع علم الحقيقة من قبل الرياضات لن يبولي شريعة حقيقة ظاهر أك باطل لن يبولي لو خم لنكم أي مهم تبقى تبقى ينطب صلى الله عليه وسلم نعم يوجد يوتب مو نبقى نتي لن يجلق ينطب صلى الله عليه وسلم دون يوخ دارا بان يدف دارا تخمني أك أك ويرم دون يدف لين الوير لا دون يوخ لين الوير لا مو ن دني دني دني دني دني تكرر على الله مسند برام bu ñu tàmbali ak bu ñu daaneel lu ñuy def lu ne ragal yàlla lañ ci jiital inna akramakum indallahi atqaakum jooju alquran waxoon moom la ñuy gànnaayoo moom la ñuy melaloo dañuy dañuy dañuy not seen bakkan duñ def dara loo xam ngistal la ndax bakkan dafa bëri pexe dafa mën a waraate wax tax ñoom dañoo fexe ba not seen bakkan te moom am na fu mu waxee ne malaktu nafsiya wa zahzahtu laay te malaktu nafsiya bëriñu bëriwuñu ku gis koo wax loolu nga bind ko mu ne ñoom gars yi dañoo baax ba nga xam ne dañuy def ne ku ñu def defe nañ ne sax ñoom ay karaama sax wala ay kéemaan di feeñ ci ñoom yë yëyewuñ ko yaraw na anfusahum dunal war a abadan wa annahum lam yaliqu bil karamati dañuy takku buñ lu leen lu leen way way tooñ def dañ koy muñ lu leen dal ci à lor wala lu noona dañuy tuub ñoom dellu ci yàlla defe ne ñoom ñoo ñoo def lu noona waaye yàlla eh, lu baax rek moo jóge ci moom fu ñu toll dañuy dañuy mel nañu triste ndax ragal yàlla foo leen fal dañuy dañuy dañuy foog fuglu ndax ndax xam uh, ku am ki ki ki njàkkaar lool mu di uh, subhanahu wa moo tax foo leen fekk foo fekk rek dañuy jekk di fuglu di ragal di di di di boole xawf ak raja dañuy ragal naafeq ndax naafeq da ngay def loo xam ni uh, wane loo xam nikul ci yow ndax xam ne nit ki loo loo loo nëbb tam ëllëg dana feeñ ndax xawfal fudooxaati fi hawlil qiyaamati ndax yow qiyaam bu ñu càggee moom lu waaye nëbboon dana feeñ ñoom xam bu ñu xam loolu nag moo tax duñ def dara lu ñu naa fekk li nekk ñoom rek la wane foo leen fekk dañuy dañuy woyef ngir yàlla dañuy dëggu dañuy dañuy dañuy dëddu àdduna ma tat yére afaati lépp luy nëxal mbir wala lépp luy taqal mbir dañ koy dañ koy dañ koy seetal fu ñu toll ñu dañuy jublu jëm ci yàlla ci jàll bu ak jafo bi bi nexa i shikaayaati bu xéewal bu indee allahumma in atatini fa shukru wa in manata faridat wa sabru bu xéewal gi ñëwee ñu sant yàlla bu leneen ñëwee ñu sant yàlla mun ko kon léegi ñoom lu mën di rek Euh, inha i shikaayati duñu sikk sag ñu duñu duñu duñu duñu jàmbat duñu duñu jàmbat suñ toll rek dañuy wéeru ci yàlla sant yàlla bokk nag seen i meloon tam borom yi xam-xam lañ borom dañoo ñu lewet lañ duñ fi nekk nag di wootee maqaama ka weddi nit al ilmu siimatuhum wal xilmu daydanuhum duna daawi wa inkaaril maqaamaati waaw dañuy dañoo fees teel la xam-xam waaye dañoo lewet domm nag bu ñu fa nekk rek di wooteeg nii laa mel rek mën naa léegi xam naa ne déedéet ñu weddi kenn itam ku ne noonu yàlla def euh, neex na leen maandu nañ ca kon nag maa ngi métti lu seen dem ñoom ñooñee ñooñu nga xam ne seen yoonoo mooy tariqatul Mustafa xayril bariyaati kon moom moom rek moo fi mel nii waaye bëgg naa wax ne nii laa mel waaye da koy def ci defee woo xam ne bi sóora xayri mubashara de façon indirecte ci gàttal rek mën nañ ci taxaw loolu ci bayti bu nekk daanaka rek sara wax ci lu baree bare waaye pour pour gagner du temps rek ñu gën a kii tuuti dem nag ci léegi xeeti murshid rabbani ak benn bu ne fu ñu ko teg ci ci ci bindum sëriñ bi rek sëriñ bi rek sëriñ bi da cee tënk ñett rek muy cheikh waxoon naa leen ne mursid rabbani ba dañu tur bokk na ci turam cheikh am na fa ko sëriñ bi tudd cheikh tarbiya cheikh taalim cheikh tarxiya gadaay bi am nañu ci yokk ay tasfiya ak taxliya ak taxliya waaye yeneen mbir la waaye ñett yi sëriñ bi insisté rek mooy cheikh taalim cheikh tarbiya ak cheikh tarxiya kenn ku nekk moo wax ne mooy kan ak lu lu war a daje ci moom ak la la la lan mooy cosaanam mu dëkk ci cheikh talib ba rek ci bañ mo cheikh abdou ahad bi la wax ji joggi page 129 130 ba 131 dama ngi fekk mu ne cheikh talib mooy koo xam ne mbir war naa nekk ci moom war naa am xam-xam bu wér war naa am lamiñ leer bañu mel lamiñu mom ndax itam tabe kërëfi rek lamiñu leer war naa am xel xel mu xel mu reuy xel mu raja aqal raja ndax day jàngale cheikh talib mu ne mu ne xel xel mu xel xam-xam bu wér dafa war a ne xam-xam boo xam da nga koy teg ci kitaab bi ak sunna ak waxi gaa yu baax yi jàngale gaa yu baax yi ak lépp lu xel nangu ak lépp lu mbir mu rafet nangu ak lépp lu euh, lay wu jub nangu kon loolu mooy loolu mooy loolu mooy sa charte bu njëkk bi ndax mënoo jàngale te moo xam-xam ndax jàngale moom du dara loolu ay connaissance ngay transférer rek ay xam-xam ngay jël di ko jox keneen kon nag xam-xam yooyu nga jël war naa leer war nga koo xam war nga am lamiñ wu leer itam ndax bi xaytu yubayinu bihi an almaqasid min gayri ihtimalin wala tasawur li an alibara hiya lati tufidu almaqasid wa tarfauha ndax booy jàngale foog nga war nga wax lu leer waaye booy tab-tabee ka keeki ijee ka wala xamuñu li ngay wax kooku taxut ñuy wax booy jàng da nga war a mën a wax cheikh taalim dafa war a mën a leer lamin da nga war a am aql raja da nga war a am xel mu rafet mu yaa moo xam ne li ngay wax da ngay xàmmee xam-xam yi xàmmee sew sew yi xàmmee lu yàq ak luy ak ak ak ak luy wàññi ak luy yokk nga nga nga seet wecc te te doo rusa wax xaw ma nangam da ci roy imam malik rek la nga ko waxee mu ne imam malik li ëpp ci li ñu ko daan waaj daana wax ne la la adri te ah, imam malik xam nga ne mooy eh, imaamu daaril hijra sallallahu alayhi wa sallam mu ne nag yow mi jàngale nag cheikh taalim war ngaa am xel mu rafet war ngaa maandu war ngaa ànd ak dëgg te bu ruus boo jaam boo jóomee bu ruus ne juum naa boo xamul te bu ruus ne bu eh, ma waaw te lépp loo xam ne day indi sikki sàkk ak sikki sàkk ak moytu ak ak werante nga moytu ko kon loolu da nga war a nekk ci leer fu ñu ko teg bu mu cheikh taalim sëñ bi ne daal leer na ne eh, xam-xam kenn du ko xam te kenn du jàngale te amoo xam-xam kenn du te amoo xam mu ne téere sax léeg-léeg dana doy ci nit ku am xel ku réyum xel léeg lekk tiiri dana doy waaye nag dana des téere rek doyul da ngaa war a am kilifa gu la koy wan ndax ay alquran mo wax bala huwa ayatun bayyinatun fi sudur alladhina utul ilma mun fi kitab al minhaj imam al ghazali dafa wax ne ana al kutubu kafiya walakin cheikh fatih wallahu taala alam mun tere yi man na doy mën nga réewum xel jàng tere xam ci lu bari way nak cheikh bi serigne bi ne ko jàngal moo la koy ubil kon ni sante bu baax suñu serigne bi ñu doon ubbil muy alaaji bakk jaxate mu tedd ñu ngi tuddu sànq ñu ngi koy ziare bu baax ndax ubil nañ ci lu bari yàlla nak ko yàlla yokk fan fa ram te yàlla wéral ko al kutubu kafiya walakin al shaykh fatih kon loolu mooy euh, wéeruwaayu cheikh taalib dafa war a xam ndax bal huwa ayatun bayyinatun fii sudur la fii sudur la utul ilma bu dee ku réewum xel muus mën naa jàngal boppam téere yi waaye nag li gën mooy mu am ko jàngal waaw cheikh beneen cheikh bi mooy cheikhu tarbiya moom dina ko sëñ bi tudde moom dafa dafa dafa war a am ñetti mbir war naa am war naa xam bakkan yi ak ak seen état yu biir ak yu war naa xam nekk wujud bi ak taqallubaat yi ci am soppi ko yi ci am ak ak atte yi war naa xam tasrif maanaam eh, loolu nu muy doxee ak nu ñu koy defee donc maarifatu foos mais dafa war a xam yow mi yow tarbiya bala ngaa tarbiya kenn day am na war a mel li may wax damay wax ne moom moo ko mel la waaye waaye dañ dañ ciy laabiré war ngaa xam bakkat yi xam seeni xaal yu biir ak yu biti xam li koy yokk xam li koy wàññi xam li li tax loolu am bi tajriba te doo ci sikk sàkka doo ci farfarloo war nga xam exi aduna ak ak soppi ak ak atay di ak diine ji li nga xam mom la ci diine wax mom la ci orfu wax mom la ci tajrib wax num mu tuddati aji sami manam maanaam aji katif wal arwah latif manam koori jëm yi jëm yu sew yi ak jëm yu dij yi lépp nga xam manam war nga xam zahir ak batin dal ci gàttal zahir ak batin fu ñu ko tek rek mon cheikh tarbiya mu ne alquran fi mu waxee ne wattabi sabila man anaba ilayya mu ne sallallahu alayhi wa sallam da daan yar waa këram yi xam nga dañoo bari woon saxaaba yi ay junni junni lañ mais mais yemuñu woon li li wala fa di wax naan fukki xar wala fukki fukki fas wenn yeta leen di sàmm waaye fukki ñun nag fukki fukki fukki yeta leen di sàmm ndax kenn ku nekk sa xaala kenn ku nekk sa xaal kenn ku nekk sa ni nga mel kenn ku nekk ni ngay defare mu ne sallallahu alayhi wa sallam alquran dafa wax ne wattabi sabila man anaba ilayya mu ne sallallahu alayhi wa sallam da daan jàngale saxaaba yi kenn ku nekk ci ci ci li lay faj amna ñoo xam dañ la wax ni nañ wor amna ñoo xam dañ la wax nañu jàng alxuraan di koy waral moy amna ben laaj bu ko ñetti laaj ñu bokku amna ko ne ma ahbul amal ila ilallahi sala ya rasulallah li ñi defal yàlla lu ko ci gënal am ko ko laaj mu ne ko al jihad fi sabilillah am keneen ko laaj ne ko ma ahbul amal ila ya rasulallah mu ne ko burur burur walidi ke ke dana ko laaj ko ne ko ma ahbul amal ila ilallahi mu ne ko as-salatu fi waqtiha xam ne kon ñetti jiite ngoog kenn ku nekk mu jox la tontu boo xam ne boo ko jox ci des ndax kenn ku nekk am na la lay faj kee xëy na jihaad da koy faj kii bu róoru walde day ne ma koy faj kii jihaad salatu fi ha koy faj waaye boo leen boole woon ñoom ñëpp ci benn pax rek musiba am damay wax ne médecin yi ngeen xam médecin bu jëloon benn médicament nga jël fukki ñu malade nga bind leen benn médicament bi ñii danañ wér ñi danañ ñi danañ waay danañ tane ñii danañ faatu ñii danañ danañ paralysé waaw ndax ñu ñu bokkuñu bokkuñu histoire bokkuñu poids bokkuñu bokkuñu tension dégg nga bokkuñu euh, antécédent médicaux donc ñu bari bari bokkuñu ko kon kenn ku nekk la lay faj moo tax mu ne sallallahu alayhi wasallam kenn ku nekk daan daan mu ne am na ñoo xam ne sallallahu alayhi wasallam daan insisté ñoom pour ñu dugg taxaw guddi taxaw guddi di julli guddi xam loolu moo leen faj yonte yàlla Aïcha daana dem ba léegi di mel na kuy xaw a kii loola waaye tax taxul mu wax ko dara te mënoon naa wax ne ñëpp duñu jóg di julli julli guddi waaye am na ko daan def mu soññu leen ci am na ko daawul def te dawul leen ci nañu joxoon ay adkaar ay ay yu ñu jàng te jox ko ñu ci des kon kenn ku nekk rek kenn ku nekk ak lay faj laa bëgg a wax waaw wa cheikhu tarbiya ñu ñëw ko cheikhu tarxiya xam nga ko wax nañ cheikhu tarbi taalim wa cheikhu tarbiya ak cheikhu taalim cheikhu tarxiya cheikhu tarxiya itam sëriñ bi nee na ñetti mbir koy melal day koo xam ne saa boo ko gisee rek mu am am dolli ko saa bu waxee ci yow rek da lay gën a yokk xaal saa boo jaxasoog moom rek nga xam ne am na lu mu yokk ci leer kon loolu day mel day bàttine soo ko gisee rek da ngay dolli ko mu ne gaa yu baax yi ma tax ñu wax ne ko ñu wax Mouhamed benn waasian mu gis rek danañ dolli suñu positif ak suñu bëgg yàlla lu mat semaine boo xam ne du jar ñu jàng dara mbaa ñu def dara ndax jëmm gis nga ko gis rek mu ne ki seexu tarax yi dafa koo xam ne waxam dalay yokk day yokk sa xaal Abdou Cheikh Abdou Salam Ibn dafa wax ne bul ànd ak koo xam ne rek ngeen baal ma ci waxee day jàpp ne moo la gën kooku koo kooku kooku na nga ko sori wala bu mu jéem a wàcce boppam ba bay wax ne yaa ko gën mën naa boobu da lay wax lu lu neex waaye du dëgg ci moom ànd la ki lay wax dëgg rek ànd la ki nga xam ne boo ko gisee rek sa xel dem ci yàlla ànd la ki nga xam ne boo ko boo xoolee rek sa xel dem ci yàlla mu ne am na ñoo xam ne ci nit yàlla yi gis leen tudd leen ak leer la ci xol gis leen day ubbi eh, mbóot yi kon cheikhu eh, fu ñu ko teg mu ne sa mu ne sëriñ bi nee na sa anas anas radiyallahu anhu nee na bi yonentu sallallahu alayhi wasallam bi ñibbi àjjana bañ denc ko ba noppi nee na bi ñu noppee ci denc ki bay fëgg suñu loxo dañoo yëg witti boo xam ne xam nañu rek kan wujuduhu sallallahu alayhi wasallam am na lu mu fi nekkoon mu ne ma nafat na turab ala aydina min dafnihi sallallahu alayhi wasallam hatta wajadna naqs fi qulubina فأفاد أن رؤية شخصه الكريم كان مفيدا لهم في حصول الأنوار فكذلك من له نسبة منه بطريق الوراثة العلمية boobu moom moom ñu lay wax ndax waree sax wiraasaal mi bu wér a wér mais mu ne anas nee na bi ñu dencee yonte ba noppi rek ba ba denc ko ba maasale ba fax suñu loxo rek yëg nañu widd boo xam ne xam ne am na lu ñu manqué kon lam fa lam fa nekkoon na ko daan def kon kooku cheikh tarqiya la bokk tax mu ne am na waaju baax bu ne am na nit yàlla yoo xam ne di leen xool rek jaamu yàlla la di leen xool rek jaamu yàlla la yàlla dafa bari lay jëf lool serigne bi ne amna ño xamne xam yàlla yo xamne xam nga du ne ko ma xol dan amna jam yàlla yo xamne ku len xol genn xol rek man nga caa taxe ba faaw lolu xam ngeen li ci bëgg wax kon amna jam yàlla yo xamne ku len xol rek genn xol sans yi da sans adan la shaqawata baadaha waaw gannaaw cheikhu taalim wa cheikh tarbiya wa cheikh tarqiya amna na lu ñuy wax tasfiya ak taxliya ak tahliya waye gën baña gëna guddal yef yi tax lolu mom moom ci ëpp kañ def loola kañ kañ tarbiya kañ ta'lim tarxiya ko euh, tarbiya ko tarxiya ko moo ko defal boppam mooy kamaal la boo xam ne mooy taxliya boppam taxliya boppam tasfiya boppam taxliya boppam waaw nga xam ne moom day mel ndab rek bu ñu la ko buñ la ko la ko defarlee ba noppi yaa koy raxas yaa koy selandi yaa koy duy ci say bëgg lu baax ak sa farlu euh, bu ko defee bu ñu jógee ci loolu euh, ci ci tënkaat rek ndax mën nañ cee wax lu baree bari ci baat yi mu tudd ndax ñett laa ci wax rek daanaka waaye ñettee ci des muy at tasfiya wa taxliya wa taxliya yooyu yëpp yu nuroo la waaye ah, alxaw bu ñoo koy xam yéen gaa yu baax yi ak borom xam-xam ñoo koy xam waaye ñu ñi nga xam ne dañuy fortaatoo ko dabadaaxee rek mën nañoo yem ci ñett yi nga xam ne ci la sëñ bi insisté su ko defee ñu doon laaj nag léegi makaanatul murshidi rabbani waaw murshidi rabbani lan mooy eh, wàccuwaayam wàccuwaay boobu itam ñu mën cee wax lu baree bare eh, ndax wàccuwaay bu wuute la ndax comme day jàngale di former di yeete di laaye biir di ci yàlla di ko teg ci yoonu jub kon mën ngaa wax ne da koy ànd ak moom ci dund gépp kon mën ngaa wax ne mën na am na makaana diine wàccuwaayu diine am na wàccuwaayu yar éducation am na wàccuwaayu jàngale am na am na wàccuwaayu social am na wàccuwaayu politique am na wàccuwaayu orientation am na wàccuwaayu administrative am na wàccuwaayu spirituel am na wàccuwaayu direction am na wàccuwaayu diplomatique ci gën ci ak yeneen wàccuwaay yoo xam ne mën nañ koo lim waaye mën nañoo yemani ci yooyu rek tudd yooyu bu ci nañu wax ci baat bu gàtt rek wàccuwaay wu njëkk mooy wàccu ji wàccuwaay ju diine badaaxata ndax xam ne murshid rabbaani la comme nitu diine la kuy jàngale diine kon euh, am na euh, wàccuwaayu diine woo xam ne day jàngale te murshid bu njëkk bi ne woon na innama bu'istu mualliman innama bu'istu li utammima makaarimal axlaaq kon jàngale ak yare ak gidee lo lo loolu mooy wàccuwaay wu njëkk bi wàccuwaay yu diine woo xam ne moo tax mu am ndax bu doon diine duñu joteeg moom dara wàccuwaayu euh, jàngale ak yar damay wax ne sëriñ bi ba mu waxee ak waa ñu baax ñi ci Mbàkke Kajoor ne rabbi asxaabaka bil himma shaafahani la wax rasulullah sallallahu alayhi wa rab wa qaala rabbi asxaabaka bil himma wala turabbihim bi darsi faqat kon loola lu day war da nga yar sa gaa yi ci ci ci ci jitte te bu leen yar ci jàngale képp xam nga day yar ci leneen yar ci jàngale di yar ci himma kon makaana tarbawi yëpp bu réy la loola ñuy jàngale ñëpp moom lañ moom lañ roy ci moom moom lañ donn ci moom moom lañ roy ci moom ndax mën ngaa wax ne eh, xam-xam bi ak yar bi lépp day laytaayal yar yar bi ak defar gi ak ak yéegi gi moo tax sëriñ Fallu ci la waxoon ci ne ceeroon dañoo yar bañ a nër mu jàngal ñu bañ na ar mu ya muy lee eh, yee ñu bañ na jar waaw nga xam ne kon lu ci ne lu ci ne day ñëw eh, kilifa diine day am makaana taalimiya ndax day jàngale ndax ku yar rek da ngay jàngale fu ngay wax ñu dégg wa ma innama bu'ithu li utammima makarimal axlaaq wa ma atakum wa ma ataakum rasulu faxuduhu wa ma nahakum anhu fantahu kon sallallahu alayhi wa sallam mu jàngalekat bu mag bi nga xam ne ñiy jàngale ñëpp ak ñi baax ñëpp seenum jàngale ak seenu baax ci moom lañ ko jëlee kon kilifa gi ne day jàngale sëñ daara yaa ngi fi tabarkàlla di dégg li may wax gën ma koo xam fuuf makaana ijtimaaya nga xam wàccuwaay sur le plan social nga xam ne kilifa diine gu ne fa mu nekk ak lam fay lam lam lam fay liggéeyee ci njaboot ga njabootu boppam ak njaboot ga ko wër njabootu koñ ba njabootu quartier ba njabootu dëkk ba mu nekk ba ci njabootu biir réew mi eh, xam ngeen ko tatbiqan lii sa sallallahu alayhi waxoon ne addiinu an nasiha wa solxu xayr wa solxu xayr nga xam ne xam nga ne ku mel ne Cheikh Mountakha mi li muy li muy li muy li muy teggoo ci ay coono ak i ak xéewal ak di ko def ci yoon ak intervention kenn nu mu toll kilifa yi nga xam ñoon ñekki roon ñëpp kenn ku nekk fa nga féete yaa ngay def lu mel noonu tàmbalee ko sa kër sa koñ sa quartier sa dëkk ba ci réew mi waaw kon makaane uh, dawru ijtimaa yi boobu dafa kii ma ne lool li muy séddale ci ay ñam di ko séddale ci ay xéewal di ko la ci ay ay téere di ko séddale ci ay ay ay garab ak ak ak ay yére ak lu ne lu ne ci xeewal di ko séddale ci njaboot gi loolu la kilifa diine di di def rôle bu rëy ci wàllu politique kooku nag du ma ci sore ndax réew mi dafa sensible fi ñu toll te réew mépp loolu la ñuy déglu waaye politique moom li ma koy dara waxe saa su nekk rek ni ñu ci saa Saliou Mbacké yeewoon rek dafa yomb mu ne weesuwul ñaar bëgg falu ak bañ a folleeku rek bëgg falu ak bañuy a folleeku bëgg falu nag jërul wax lu ñaaw bañ a folleeku jërul wax lu ñaaw ndax dañuy wax ne réew mi ñu nee na ñoo ko bokk eh, koo fi gis rek sa bokk la baa muy sa mbokkum mbokk wala sa muy sa xarit wala sa xaritu xarit te it coow li lu yëf yëngu bari bari du yàgg ndax sëñ Abdou Lahad bu baax mi waxoon ne ne ay xel mëna su ca dëkk mu ne la romb xel wa neex rek ba mu jógee yeggul wala fa mu jëm soriwul ay xel mëna su ca kon nañ ci boole dal ndax gis ngeen li fi dal ku ne dafiy ñëw ku ne ku ne dafiy ñëw euh, kilifay diine yi kilifay aada yi kilifay administration yi kili ñii gestion affaire générale yëpp dañ fi ñëw di seet si kilifa yi di ko def ci mustawayeer yëpp nag ci niveau yëpp waaw kon kooku rôle bu rëy rëy rëy la euh, kilifa diine ndax ay ay équilibre la maanaam dañuy tawasun tawasun ijtimaa yi dañ ciy dañ ciy yëngu bëgguma jox sore ndax fi réew mi toll ndax réew mi léegi boo waxee dañuy këf see wax dagg ca dara dugal ko fu leen neex te fekk loolu taxuñoo jóg waaw kon nitu diine itam dafay dafay war a jàngale dafay war a orienté nit ñi waaw loolu moo nekk ci dëkk bi moo nekk ci dëkk yu ko nuru moo nekk ci yoon wi moo nekk ci yeneen yoon yëpp moo nekk ci dawaayir yi moo nekk ci munazamaat yi ndax kilifa gi nag kilifa gi la ñuy déglu kenn ku nekk am na koy déglu noonu la ñu koy éragé ba àgg ci kilifa gu mag kon ku nekk am na orientation yooyu joxe yoo xam ne moom ngay joxe ñu la ciy déglu bu ñu waxee ñu ne lu sëñ bi wax gis nga ba ba àgg ci ñun daanukat yi sax bu ñuy seeti weer dañu naan ah ñun ñu seeti weer dañuy déglu sëñ bi rek waaw bu sëñ bi ne weeri feeñ ne ñu ne weeri feeñ ne bu sëñ bi ne nañ ko séntu ñu ne nañ ko séntu ñun sëñ bi la ñuy déglu ñun ah, dégguñu fi séntu weer yëpp loolu waxee waxee waxee waxee dong la te dëgg la ci wet ndax sëriñ ba du wax te xamul li mu wax xamul fu mu ko teg lu leer lay wax kon makaana roox yee ba tey eh, kilifa diine dafay am wàccuwaay sur le plan spirituel ndax itam eh, nit ñi doo leen doo leen yilif ak neen nag mën nga leen a yilifee matériel waaye foog am lu ci aju nag matériel kese duñ ko yilife ñun ñi am na leneen lu ci aju loo xam nag ñun ñi ko gëm dañ koy gëm koo gëmul nag ko waaye nit ki mën nga ko ëpp matériel am na loo ci dolli loo amu ko moom loolu lay toppee waaw moo nekk ijaaba ilahiya am na ñu ko weddi waaye loolu comme soobu nga weddi ndax moom man kaane man shaa fal yumin wa man shaa fal yakfur waaw bu ko defee kooku mooy sulta roxiya bi nga xam ne kilifa dina da koy am sulta qiyaadiya nga xam ne moom itam eh, da ngay orienté nit ñi di leen jiite damay wax ne mourid gi parce que mourid la sañ wax mourid gi dafa nek quwa ruuxiya la quwa bashariya la quwa iqtisadiya quwa ilmiya la quwa maliya la quwa tanzimiya waaye quwa intixaabiya lay dem donc lolou lépp daje na ci mourid gi yéen ñep xam ngeen ko te bu ci demoon nañ ko sara way jotaay bi bëgg ciaté motax duñ ci sori force spirituelle bi yor mourid nek kenn du ko werante force humaine bi mu doll ñaata millions yi talibé ñoo di mourid yo xamne ne kenn la déglu bu newoon kay leen dé ñëpp dee tey suba bu leen kay leen kay leen fanaan ni dëkk sàngam ñëpp fanaan ni fa kon am na quwa bachariya boo xam kenn du ko si sàkka quwa iqtisadiya boo xam kenn du ko si sàkka quwa ilmiya li ngeen jàng ci jàngkat yu baax yéen ñi ak ñeneen ñi fi nekkul ak ñi may dégg li may wax ak ñi may seetaan ak ñëpp kenn xamul nu mu toll tabarkalla kaar quwa tanzimiya ndax ñëpp benn baat dañuy déglu nekk nag quwa intixabiya voilà loolu moo tax force électorale gi mu nekk moo tax nag gis ngeen dërë dërë jéeg tabarkalla tabarkalla alhamdulilah wasalaatu wasalaam ala rasulillah mu nekkaat rek xuwa diplomatie ba xëy na boobu ci la ñuy daaneel aw ñuy àgg ci daaneel bi xuwa mu nekk euh, wàccuwaay diplomatique boo xam ne kilifa dina da koy am xam ngeen ni fii euh, recevoir nañu fi ay chef ay chef ba tey yu bare bare ay ministre ay ambassadeur ay plénipotentiaire yu jóge fu ne ci biir réew mi ak bitim réew waaw dégg ngeen Cheikh Mamadou Fadal dañu wax ne ci année 60 yi euh, yónnee na fi 6 millions Palestine fidaayin palestine yi xeex ci palestine mu yónni leen 6 millions jamono yooyu booba 6 millions bari na euh, pour ne ko ki ki ki président Nasser yónni woon Mohamed Awad mooy yoroon al majlis islami al a'la ci Égypte nee na bi ñëwee def ko ne ñun euh, président Nasser dañoo yónni booba al marhum Gamal Abdel Nasser moo fa nekk daf ñoo yónni ñu xool dëkk diine yi dëkk dëkk islam ñu soxla ndimbal ñu dimbal leen yow nga ñëw nga ñoo jox xaalis mu ne ko déedéet wolof dañuy wax ne euh, domp domp ci la bokk mu ne ko fidaay yi xeex ca ca Sinaay yi seen kafe ngoon la ñoom lan la ko jappalé té dañu gis lool na ko sëñ sëñ Muntaxa lé gannaaw bi inshallah kon kon année 60 yi mu joxé 6 millions diko ko dimbale Palestine yi kooku acte diplomatique la té gis nga difa ñu ci délégation li fi ñëw chef d'attaque rek mu tolloo loolu duñ ci insisté yi ñëpp xam ngeen ko euh, euh sëriñ bi juñu na sank délégation bi sëriñ Sall yónnewoon Istanbul ci Habitat 2 nga bobu ni ko waxee Nations Unies ñoo tan Touba ñu nekk modèle la ci Habitat ndax lotissement lotissement Touba day dëkk boo xam ne amul euh, ay bidonville amul amul amul amul ay bidonville amul quartier flottant lépp dañ ko te lotissement bi moo jiitu dëkk gi nga ku ñëw dañ lay may waa bu nga jënd mais amul fàkk dëkk wala ñu bedd yu jubbanteeg bedd kii lépp kon loolu la ci la ci ko modèle ñu ne invité délégation li ko sëñ bi ko baaxee woon ñu ci ñu ñu ko ci waaw muy lu muy muy ndam lu rëy rëy nag gisoon ko habitat 2 parce que dañu koy def ñeenti at yu nekk lañu koy def waaw ndeysaan nga xam ne <laughs> bokk na ci anecdote yi ma ciy wax kilifa ga fi nekkoon ministre euh, de l'habitat du ma tudd tur ndax réew dafa doy waar euh, dafa wax ne booba kilifa réew mi fi nekkoon dafa day waar mu ne bu ma ko waxoon ne ko euh, dañoo tànn Nations Unies Touba dañuy wax ne ah grand bàyyil noonu rek ndax réew mi dafa neexut ndax buñ ko buñ buñ tànnee Touba dañu naan pourquoi ñu tànn Touba pourquoi tànnuñu ñële pourquoi tànnuñu la nañ bàyyi noonu rek mu ne loolu lay bañ moo tax buñ ma ko Nations Unies joxee information bi rek dama ko wax ci presse bi bu ko xasee wax ci presse bi rek ki dugg ma téye nga <laughs> loolu détail la boo xam ne dafa am solo ci mbir ma waaye li li ci am solo rek mooy acte diplomatique boobu rek sëñ bi def ko te def yeneen acte diplomatique yu bëree bëri sëñ Abdoulaye yónnee na fi Irak yónnee na fi Libye yónnee na fi dëkk yu bëree bëri sëñ Saliou yónnee na fi dëkk yu bëree bëri barki démb ci événement euh, euh, tremblement de terre bi xewoon Turquie dégg ngeen ko Cheikh Mountakha radiyallahu anhu yàlla mi yàlla na fi yàgg te wér délégation ambassade ba gis ambassade yónnee 200 millions jàppale ko le peuple turc kooku acte diplomatique la acte humain la boo xam ne de haute facture koy koy loolu macha allah def na ko ci Maroc itam

dañ ko Bordeaux Lyon Marseille ak am ay préfet ñun ay gouverneur dañu ministre des colonies préfet yi Algérie dépendre ministère de l'intérieur de France donc bokkuñu situation yi bokkutoon mais teewul nous. ñu révolté mu metti lool Cheikh bokk ci ñu la sax dañuy wax bëgg seen rek dañuy wax Algérie ñoo tax ñu am parce que comme France va am intérêt yu bari bi ñu ko sonalee ci révolution bi mu ne ah dëkk Afrique yi nga xam daal yàlla xam ne xaar mbay dañuy dem rek ñoom amuñu ma solo waaw waaye loolu fekk yëf yi demewut waaye ñoom noonu lañu ko gisee fi mu ne dañuy wax ne gannaaw yàlla ñoom ñoo tax ñu ameen indépendance waaye li te li ma xam te mooy wóor na mën a jamono ji ñun taalibe yëpp ak ñun murid yëpp ak ñun jullit yëpp ñu ngi jàppale waa Palestine ci suñu xol ak suñu ñaan ak suñuy taxawaay ndax lee fa xew nga xam ne kenn kenn du ko rafetlu képp ku am xel doo ko rafetlu ci àdduna muy ak tooñ di di doy waar loo xam ne gannaaw amuñu doole juñ ko juñ tag ko def xetale ko nañ ci ñaan rek wa du'aa silaaxul mu'min xul ma yaa aboo bikum rabbi lawlaa du'aa'ukum te xam ne ne yéen ñëpp ngi ci ñaan te bu ñaanee ba ñaan li ñuy wax ne ku ñëpp tafale danga tooy ndax lay metti na lool rusul na lool ñaaw na lool euh, kon ñu ngi bëgg a daañal kon sëriñ bi incha allah maanaam léegi dafa am lu ñuy posé euh, dama bu ngeen gisee li may li may wax principe yi may wax xalaat yi ak charte yi ñëpp ko bokk góor ak jigéen waxuma ci góor waxuma ci jigéen du du noonu waxuma ci askan waxuma ci xeet li li ñuy wax rek mooy kafaa ilmiya nit ki am capacité na ragal yàlla na jub na am istiqama na mandu na xam li muy def ak charte yi ma dégg nga may wax mais dañoo seetlu nag ne ci amali ahli Touba pour pour pour paraphraser un peu li wax amali ahli Madina amali ahli Touba al khilaf al amma dama ne ci ak ak al urful murid yi ak abqariyati Cheikh Ahmadou Moustapha am lum ci yok manam yeneen churut yi ndey mel ñëpp ko bok gis nañ fi jangale kat yu góor gis nañ fi jangale kat yu jigen gis nañ jàngal kenn xalaatu doon jangale kat yu bok ci askan sangam ba askan sangam lolum moom kenn du ko xalaat mbaa men sangam mbay men sangam men capacité bi rek mo ci nek ak churut yi ñu wax waye dañu seen khilafa am gi amna waqiya bu fi nek waqiya bobu nak gisuma texte bu ko bu ko bu ko bu ko naat waye pratique bi la gis pratique moy lan pratique bi mooy lan mooy li mu tuddee amalu ahli Touba aw awil orf al jaari bi al amal fi Touba loolu mooy lan ak abqariyatu Cheikh Ahmadou Moustapha mi nga xam ne moo njëkk nekk xalif xalif sëñ Touba loolu mooy lan yeneen charix yi ma gis yëpp wala muallim yi wax wala ustaas yëpp ku am capacité ba nga ko nekk waaye waaye waaye xilaafal amma bi dafa am surut yu daje ci ku ko nekk surut yooyu dafa daje ci nekk ci xilaafaat franc ya loolu mooy lan day mel ne ki nga xam ne mooy jiite ci walu googu nga xamne bu re ci yeneen barab yi ñu ngi tuddé al imam al uzma ñu di al nasab al quraish ñi di tuddé yeneen waye fi ci ñun dañuy wax ne même ci khilafa al amma gi ak yeneen khilafa yi parce que yëmul ci xilaafa amma gi rek dafa dem ci yeneen khilafa yi dafa am ñent charte yu ci daje kon damay wax ne lolu moy amul ahli touba moy al urf al jaari bi al amal fii touba mooy abqariyat cheikh ahmadul mustafa radiallahu anhu lolu moy lan moy day melni ko ki wara jité ki jité te ko day nek ku ku jóge ci serigne bi nek góor

maanaam dañoo gis koo xam ne sëñ bi lañ bokk moom mag mais ne ko xalif parce que ci jigéen la jaar xam nañ fi koo xam ne moom sëñ bi la bokk mag waaye ko xalif parce que jigéen la xam nañ fi koo xam ne moom mag ci góor la jaar waaye ne ko xalif parce que jigéen la kon li ñu fi gis rek mooy ki fiy nekk xalif day day day day bokk ci bi jaar ci góor mag bu ne bokk ci askan sëñ bi maanaam day day bokk ci sëñ bi jaare ci góor mag bu noppi nekk góor kon de day mel ni loolu mooy waaqe bi ah, waaw waa loolu damay wax ne am xarit Cheikh Ahmadou Bamba ko moo ko moo consacré ndax gisuma texte man fenn fu ñu ko waxee ni ñu ko defee nii waaye dafa indi istiqraar te loolu ñëpp ñëpp ñëpp raas nag parce que bu doon loolu mën naa doy waar te te ba mu koy indi te te yemalu ko ci xilaafaat amma gi da ko yemal ci xilaafaat yeneen yi nag kër goo fi dem boole bi daanaka loolu la fay dox damay wax ne Daaru Salaam géem a dëkk am <laughs> waaw ndindi ndindi géem a dëkk loolu la ka ka jiite ndax sañ na ma tudd yooyu moom ndax yeneen yooyu fi tudd ñu saaga la weddi la waaye yooyu moom sañ naa ko tudd moom daara salaam mu xam ne kenn doo fa saaga moom moom fa laa dëkk ndindi it na kenn doo fa saaga xam naa ndax sama sama bàkk ku leen ku leen ko boo fi saaga ñu wuti yaat moom tam daal kay jiitu day mag nekk nekk góor jóge ci sëriñ bi ba noppi jaaree ci góor donc loolu daal day mel ne mooy mooy mooy mooy waaxee bi fi nekk mooy li ma tudd amalu ahli Touba waaw al urful jaari Euh, mu indi istiqraar bu kéemaane nag noo xam ne boo bu toon loolu mën naa doy waar waaw man damay ishaara yi rek jàll ndax borom yi xam-xam fi nekk yoo xam ne li may wax yéen a ma gën a xam euh, boo ko defee rek nag incha allah ndax yëf yi mu ne soreetu léegi sëñ euh, Fallou sant yàlla bu baax nag rek ci kaddu yi tey jéglu nag xam naa ne kaddu tax koo leer ndax <laughs> magum tukkulóor mu toog ba nëgëni moom tabaarkalla ak ñem te ñeme koor loolu kaar mm, dañuy dabb daaxi rek waaye yaakaar naa li ñu wax yàlla yàlla yàlla def mu leer lu ci jub lu nekk rek ñu xam ne kon yàlla ak seen bu baax ak seen ñaan lu ci dëng lu nekk rek ngeen xam ne suñu ñàkk xam la ak suñu ñàkk mën a wax euh, in uridu ila al islaha mastata'tu ma tawfiqi illa billah ñuy ñaan ak jàmm ci turu yàlla mu di assalaam ñuy jàmm jàmm jàmm jàmm yàlla ñu yàlla jàmmal ne ko suñu bokku mbaax mi daan ñaan rek nga xam daan ñaanal kër yi ñaanal quartier yi ñaanal région yi ñaanal dëkk yi ñaanal village yi ñaanal tool yi ñaanal usine yi ñaanal géej gi ñaanal suuf si ñaanal jaww ji ñaanal idaaraat yi ñaanal turuq yi ñaanal ñëpp yàlla yàlla def jàmm ndax yaa barru yàllaahuma salbni abad min ramadana wa fi di kulla nakat wa salliman ni wa salliman ramadana ramadana bi tamaam summa tasallimanhu minni ya salaam طول لنا عمرنا صحح لنا بدنا وهب لنا الرشد والتوفيق يا الله barke bi السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله تعالى وبركاته wa جري جف شيخ محمد المأمون وطاني Mamoun شاء الله أمنا صلو am na solo te liñ ci séentu woon liñ ci doon séentu lépp it du ma ñëwaat di jéem a def taaliq ak yooyu ndax dafa leer ba noppi te jot macha allah boo ko bëggee commenté mën nga see. indi waaye daal ñu tënk li li sëñ bi doon waxtaane ñu fàttali ko rek ci tënk lu gaaw tomb bi mi ngi jëmoon ci kilifa ak diine ay meloom <clears throat> ak wàccuwaayam ci njëlbeen gi laytaay na ko xamal ñu lan lañ jublu ci kilifa ak diine bu ko waxee waaye ndax jëmmi kilifa ak diine. ak ni ñu ko jàppee ñun ndax loolu manees na ko wutal cëslaay ci alquran ak sunna defe naa ñëw na ci ci lu yaatu tudd na fii ay eh, aaya yu wute ci alquran ak ci ay maanaam ay ay ay ahadis nabawiya yoo xam ne sallallahu alayhi wa la jógee waaye ci biir muqaddima bi itam laaj na benn laaj boo xam ne mel na ne tontu na ko ci biir bi muy yaatal te mooy ndax kilifa diine benn xeet la wala kenn lay doon wala ndax mën na doon ay xeet yu bari defe naa ne ci biir waxtaan bi mu indi melo yi te sukkandiku ci njàngaleem sëriñ bi wane na ne kilifa kilifay diine mën na mën na doon ay xeet bi mu ñëwee ci ñaareelu tomb bi mooy euh, yan ñooy qualité yi nag yan ñooy melo yi foofu itam dafa mel ne dafa tarkiis rek ci jëmmi euh, ku baax ki Cheikhul Khadim ni mu incarné maanaam kilifa diine ndax ci biir waxtaan wi wax na ne sallallahu alayhi wa mooy kilifa diine gu mag mooy ki nga xam ne bu ñuy wax kilifa diine dëgg-dëgg mooy ki ci ki nga xam ne moo ne ci njobbaxtan la ndax moom moo moo moo jàngale lislaam jàngale itam nu ñuy euh, toppee ak nu kilifa diine di mel ak yan moo ca war waaye nag ginnaaw sallallahu alayhi wa sallam itam nag ak saxaabaam yi tedd yooyu nga xam ne ñoo ko wutu woon gaa yu baax yi ba ci ku baax kii moom bi mu ñëwee dafa tëj si it jëmmal lépp loo xam ne melo la wu ñuy melale kilifa diine ci ni ko sëñ bi leerale nga xam ne dafa indi maanaam xoqal bu kaaw rek wax ne sëñ bi da cee mel ne ku ci nëbbutoo saxaaba yeeg yonent bi saxaaba yeeg gaa yu baax yi waaye fekk na booba dafa bëgg a wane moom ki mu doon ak fi mu nekk ak ñi mu àndal ñi ñu doon ak fi ñu nekk te loolu te meloon na maanaam ndax ci minan Cheikh Mouhamadul Bachir wax na lu mel noonu nee na sëriñ bi ci xoqa dafa def tawriya daa daa mel ne dafa dafa dafa dafa dafa dafa nëbboo nu mu ko waxee gaa yu baax yooyu fekk na boobu xam xam nañ ne euh, ndax euh, noonu mu jàngalee ne euh, maanaam masaalik mooy faatixa bi waaye xoqa mooy xaatima bi xam nga ci masaalik boobu mi ngi ci njëlbeenu woote bi réew mi jaxasoo na bari na ñuy jóg di woote woo ci turu diine ni ay kilifa diine lañ te mën naa am doonuñu ko moo tax boo jàng masaalik ci mujj ga nga gis ni ko siñ bi leerale ak ni mu maanaam critiquer dégg nga société bi ci boobu jamono wane ne bari na ñoo xam ne dañuy wax ne ay kilifa diine lañ di di di woote ci turu diine mel naa nga mel naa nga te mën naa am ku leen jeex bu baax a baax doo ca fekk dëgg dëgg diine wala kon daan nga cay fekk waaye bi bi mu bi mu bi mu demee nag moom jóg nga xam ne maanaam yemul ci critique rek ci wàllu théorie waaye dafa daal nag diggante daaru salaam jeeg Touba jeeg yooyu nag mu liggéey nag ci wane kan moo war a nekk maanaam kilifa diine nga xam ne da koo tabax daa tabax kilifa ak diine fii fi tubaa ji ak ak ak Daaru Salaam ba mooy ñooñu ku ku baax ki doon tudd léegi saadi xam yooyu àndoon ak moom bañ mel ni nga xam ne noonu la kilifa ak diine war a mel mu di leen wane nag ci xoqal bu kaaw waaye nag mu maanaam mu defe ko nag ci anam ak tawriya mooy au lieu mu wax ne man nii laa mel ñi ànd man nii lañ mel dafa fexe ba nëbboo rek gaa yi baax yi noonu ko suñu maamoon waxee ma maanaam ulaaykal xaw mu lay wax ulaaykal xaw mu te ku ne xam ne ne moom euh, ci moo jiite ñooñu kon loolu itam lu am solo la kon mu ñëw ci daal jëm ni ni Seex Xaadim jëmmale kilifa diine ci fànn yëpp nag bi mu ci bi ci jógee itam mu indi xeeti dégg nga kilifa diine ak yi nga xam ne ay cëslaay la yoo xam ne sharia da ko da ko wane ak yi nga xam ne cëslaay yi xel la itam nga xam ne xel na ko nangu bi mu ci mu nag mu mu mu jeexale mujj nag ci wàccuwaay bi nga xam ne kilifa diine war na ko am te loolu itam mu mu yaatal ci xëy na waxtu weexat sax de jàpp naa ne li mu ci waajaloon xëy na ëpp na lim li mu indi mooy li li liñ ciy tënk rek mooy maanaam kilifa diine dafa war a nekk koo xam ne a nekk maanaam ku multidimensionnel warut a nekk rek koo xam ne dafay euh, tënku rek ci benn maanaam qualité wala ci benn melo waaye war naa doon koo xam ne dana doon kilifa diine baat bi maanaam diine ji diine dana doon taxawal diine di diine di dund diine di jàngale diine waaye da cee war a boole koo xam ne itam day amee dimension yar di yare di jàngle Eh, taxaw ci wàllu social itam comme ni mu ko misaale ci maanaam kilifa yu baax yi tàmbale ci ku baax ki Cheikh Khadim nga xam ne ku ne xam na li mu dimbale ak li mu xeetli ci ay ci ci ci ci ci ci ay jaami yàlla waaye bu ñu ko bëggee wàcc ba mu gën ñoo jege nañu xool suñu jàmbaar ji Cheikh mu mu mu Mouhamadul Mountakha ku nekk xam na sëñ bi tudd na ko léegi juj na ko fi jamono gën a méttee réew mi gën a ne ci crise ñuy wax ay pandémie ay nangam ak ak waxuma réew mu ak ci bitim réew day jóg taxaw socialement di wane ne moom kilifa diine la dimbalee ñi nga xam ne ñoo ko soxla woo tàmbalee ko nag bay nag sew tànk fii la ko tàmbalee roy ci nag roy ci nag maanaam magam yu baax yi nga xam ne ñoo ko jiitu woon ak waajuram yu baax yi Cheikh Sidi Mokhtar ku ne gis na li li nga xam ne def na ko fii ci ay ndimbal ci wàllu social kon kilifa gi noonu la war a mel ci wàllu ci xëy na ci wàllu politique moom sëñ bi xuus ci lool xam naa <laughs> xëy na fi la ñu toll ak ma ak ma kii ma euh, maanaam contexte bi waaye teewul am na lu mu ci junj lu am solo mooy doole ji nga xam ne waxuma tubaa tubaa duñ koy jëlale waaye diine ji rek ak maanaam tarixa yi am nañ ko ci wàllu maanaam poids électoral te loolu yaakaar naa ne ñi yëngatu ci wàllu politique bàyyi nañ ko xel lool ba saa bu ngeen ko gisee rek saa boo xamee ne campagne jeges ne wala ay man élection daanaka fii moom waxtu wu nekk ñu ngi ñëw ak a dem ñëw ak a ak ak feneen ak feneen waaye nag rawatina tubaa bari na ki sax ñoo xam ne du ñu tàmbali seen mitin mukk te tàmbali wuñ ko Mbàkke gi kon loolu am na lu muy loolu nag xëy na dafa war daa war a gën a tax xëy na ñu gën a xamaat bu baax suñu boobu ci buñ ko sajee wax waaye daal mi ngi noonu suñ bi ñëw na itam ci wàccuwaay bi nga xam ne kilifa diine am na ko ci wàllu jubbanti ak orienté saa bu xel yi gëlëmee xol yi jaaxle ñëpp jàq mu jóg taxaw wax def discours boo xam ne ku ci delluwaat da nga xam fi ngay teg sa tànk waaye itam ci wàllu léegi administration yëpp ma dimension administration bi nga xam ne mooy euh, ku ne xam ne xilaafa gi ni ko tëralee wax na ko léegi leeral na ko ak yi ci aju ak yi ci bagaaso yëpp leen lu ci nekk dañ koy nos ba nga xam ne fu waay jógee bëgg a dem maanaam dem jàngi wala nga bëgg a dem liggéey wala nga bëgg a dem léegi nangam mën nañ laa tegtal foo xam ne boo fa demee danañ la orienté wan la fa nga mën a jaar ba léegi bëgg nga am ko bu dee wàllu ruux gi kooku moom daanaka moog diine ci sorewuñ ndax euh, ki nekk maanaam dañu wax al mursidu rabbaani rabbaani moom yaakaar naa bu ñu ko waxee rek mooy mooy koo xam ne kon man nitu yàlla la war a doon kon mooy yooyu mu indi maanaam cheikhu taalim bi ak dégg nga cheikhu bi xataa cheikhu tarxiya bi nga xam ne wax na ne bokk na ci ay melo mooy boo ko ne jàkk rek sa xel dem ci yàlla te saa boo déggee ay waxam itam mu fàtte loolu àddina dégg nga dëdd loolu àddina nga ne soo fi jógee mën nga toog ay fan yoo xam ne du jar sax ngay jàng alxuraan wala ngay uh, tudd yàlla ndax dangay ngay sax ci yàlla loolu uh, wàll ci wàllu ruux mooy wàccuwaay bi nga xam ne kilifa gi dina am na ko ba ci wàllu dégg nga leadership bi mu wax nga xam ne maanaam poids koom-koom bi yoon wi am bu fekkee dañ ko wàcc ba ci ba ba mu jege ku ne xam ne ne yoon wu am na doolay économique am doolay social am doolay xam-xam am am doolay lépp loolu nag tax na ba mu man a am benn baat tam nag boo xam ne bu jógee ñëpp topp ci mu ngi lu mu ngi lu jafe nag loo xam ne bari nañu ko bëgg nag ci àdduna bi te dee nga amuñu ko ñu nag ñu am ko yàlla baaxee ko koy itam loolu itam mën naa tey loolu dafa bokk ci wàccuwaay yi nga xam ne kilifa dina ko am ba ci bi mujj jeexale muy wa muy nag wàllu maanaam diplomatie bi dooy itam gis nañ taxawaay yi nga xam ne suñu kilifa gu baax gi taxawee na ko ci te roy ci itam rek maanaam kilifaam yu baax yi nga xam ne ñoom la jiitu woon mën nañu wax sax dama nga tàmbalee ci jamonoy sëriñ bi jamonoy sëriñ bi la daan gis ay délégation yu yuy dégg nga bàyyi ko Arabie Saoudite di ñëw di ko seet si ko tawat seen i jàmbat mu leen di taxaw ci ñaan leen taxaw ci ndimbal ak ci lépp kon day boole social bi ak wàllu diplomatie bi kon yooyu yëpp xam naa ne bëgguma cee gën a xuus mën naa am kon ma xaw a jaxasewaat <laughs> wax wax ji wala ma lëndëmal ko waaye sant nañ bu baax a baax a baax waxtu yi jot sëkk-sëkk Eh, ñu ngi lay ñu ngi lay sant ci turu daayiratu muqaddamatul xidma di la di la ñaanal bu baax a baax yàlla gën laa taxaw te gën laa sàmm gën a gën laa bàyyi sa xel ak sa xam-xam ba li nga yéene liggéeyal sa maam nga liggéey liggéey ko ci sa maanaam sa sago te ànd ceeg itam di nga ngërëmam te lépp ñu bokk ko bu ko defee kon bokk yi eh, ñu ngi siyaare itam kilifa yi fi teew yëpp ak maanaam borom xam-xam yi fii nga xam ne ñoo fi nekk yëpp ak bokki taalibe yëpp ak bokki jullit yi di leen fàttali rek ne eh, suba ak jàmm bala ñoo ñëw ci presse bi suba ak jàmm incha allahu taala jataay bu mel nii dana fi amaat ba keroog koor gi jeex incha allah waaye suba nag ñu ngi war a waxtaane tomb boo xam ne mi ngi jëm ci yi nga xam ne sart yi nga xam ne mooy tënk digle lu baax ak tere ab safaan loolu la ñuy wax maanaam dawaabitu al amri bil maarufi wa nahyi anil munkar mbokk mi koy def incha allahu mooy sëriñ Moustapha Diop Ndar kon ñoo ngi ñoo ngi sant ci turu daayira bi mboolem maanaam presse bi ñi nga xam ne ñoo doon jàllale waxtaan wi ba ñi nekkul fii nga xam ne ñu ngi ci biir réew mi bitim réew maanaam ñëpp mën ci jot waaye bu ñu tuddee lu mel ne MK TV nga xam ne mooy dégg nga Moukhaddamatoul Khidma TV ak mboolem maanaam rajo yeeg télé yeeg euh, dégg nga ak maanaam yi nga xam ne dafa aju ci wàllu maanaam réseaux sociaux yi sociaux yi muy dégg nga plateforme yi ah, hmm? ah site internet yeeg yëpp rek ñu ngi leen di ñu ngi leen di sant di leen jaajëfal di ñaan yàlla dal sëñ bi inshallah allah bi nek jotaay bi yokk barke leer te am nañ ci yakkar ndax fi ko def ak fi ko defal ak fi ko defé ak waxtu wi di sant gërëm tey jégalu asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh وسهلا وترحيبا بلا عدد يا خير ضيف أتى بالبشر والمدد أهلا وسهلا وترحيبا بنا عدد يا خير ضيف أتى بالبشر والمدد